wëndeel sa xel ak teg sa bët ci dunyaa da yàqu xol nañ wàññi xew-xew yaa ak teg sa bët ci xol xew-xew yaa dara du doy looy booy jot loola gisaat leneen fëx lépp di xufuulaam dara du doy looy dàq booy jot loolam gisaat leneen fëx lépp di xufuulaam nan wàññi xemmenteef ak mébét yi texante woo yàlla ti muñ bànneex nan wàññi xemmenteef أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله قبل كل أحد والحمد لله بعد كل أحد والحمد لله على كل حال اللهم صل على سيدنا محمد ومن والاه adada ma taalamahu min bida illamri ila muntahaahu wa ala alihi wa sahbihi bukratan wa asila rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi déglu Siwal FM 98 point 0 di ko dégloo fii ci ndakaaru ci Cité Cyprès loolooy FM bi mooy 98 point 0 waaye ci télé bi yéen a ngi koy seetaanee ci 3W point siwal tv point com ngeen mën a seetaan émission bi en direct ci internet bi 3W point siwal tv point com waaye tamit ngeen mën faa dégluwaale rajo bi. man fa tamit euh, seetaanaale tele bi boole ñaar yëpp waaye ci 3w point siweul point comme yi tamit da ngeen fa fekk euh, rajo bi ak bi ci 3w point oustaz point net da ngeen fa fekk euh, rajo siweul fm ci oustaz point net ngeen mën fa déglu émission bi en di nuyu ak ziyaara mbokk yi nga xam ne nii yëpp fa tabaarakallaahu ñoo dagg seen yitte di bàyyi xel émission bi di aaxiru zamaan émission tay bi nag bokk ci émission yi nga xam ne moom la mbokk yi di bàyyi xel lu bari ndax mbir mi ci réew mi nga xam ne ñi ngi koy bàyyi xel mbir mi nga xam ni boo demee ci marché yi moom la ñuy waxtaanee boo demee ci grand place yi moom la ñuy waxtaanee nga dem ci bureau yi moom la ñuy waxtaanee nga dugg ci oto yi moom la ñuy waxtaanee ñi tëdd ci néegi ñi ci ëtt yi ñi ci peron yi moom lañuy ñuy waxtaanee biir réew mi di ko waxtaanee bitim réew di ko waxtaanee àdduna bi yëpp yëpp àndandoo di ko waxtaanee nga xam ne picc yi ci garab yi sax moom la ñuy sabee muy mbir moo xam ne nii mbir mu xew ci réew mi la kenn ci doomi réew mi. nekk ku tekkee di ci doomi réew mi nekk sagaru professeur di woote woo as xam-xam su mu am njàng leneen lu nekkul turu sunu boroom ba am sa xam-xam xam-xamam jay ko xam-xamam nax ko xam-xam ba mujj doon xëm-xëm mu jukki ci xam-xamam boobu noonu la jukki buy wane kéefëram gi nekk ci xolam mu fesal ko ci mbind jëme ko ci téere yàlla bi nga xam ni yàlla nee na neen du ko dikkee kanam du ko dikke ginnaaw moom mu ne téere boobu noonu le am na ay fët yu ci ne yamul ci ne alquran am na ay fët ko xamul fët mooy njuumte nga xam ne nii njuum moom ci nit lañ ko xamee woon waaye di du du ci ki bind nit kooku du juum muy subhaanahu wa taala téere bi nga xam ne yonent yàlla muhammad ñëw na ba dem gisu ci njuumte Seydina Abubakrin Siddiq Omar ibnul Xataab Aliyun bun Abi Talib Ousmaan ibnu Affaan Abdoulaye bun Zubayru Talatu Saad ibnu Abi Waqaas taabiina yi ñëw ñoom Saïd ibnu Jubayru ñoom Xasanul Basri gisuñ ci fët imaamu Malik ñëw imaamu Shafii Abu Xanifa Ahmad ibnu Hambal imaamu Thawri Isxaaq Rahawi ñoom ñëpp ñëw gisuñ ci téere bi fët ki nga xam ne mooy nit yàlla yu mag ya ñoom Cheikh Abdul Qadir Jeylaani ñoom imaamu Junudi imaamu Suyuti fóore yu mag ya ñoom ibnu Taymiya ñoom Xaafid ibnul Xajar ñoom ibnu Rajab ñoom ibnul Qayim al Jawzi ñoom ñëpp ñëw ci téere bi gisuñ ci fët ñoom Cheikh Sidi Ahmed Tijaani wàcc ci taalibeem ya Cheikhul Xaaji Omarul Fuuti ñoom maam Serigne Touba ñoom maam Abdoulaye Niass ñoom maam Cheikhul Hadj Malick ñoom maam Bou ñoom ñëpp ñëw ci téere bi gisuñ ci fët jenn waa ju judd barki démb bokk ci ndongo yi nga xam ne Senghor a leen formé jox leen bourse ñu demoon jàngi bitim réew France xëy ñëw ñu ne ko léegi agressé nga ci wàllu euh, langue grammaire français ñu naan mooy deuxième africain boo xam ne gannaaw Senghor Senghor moo ci agressé agressé googu mu agressé ci langue grammaire grammaire mu sukkandiku ci agressé jullit ñëpp mu sukkandiku ci agressé jullit ñëpp ci seen pas-pas ne seen téere bi nga xam ne moom ngeen fi fekkoon depuis junni at ak lu topp téere bi yéen gisu leen woon ne téere bi njuumte da cee am seen maam yëpp ci erreur lañ doon dund seen maam yëpp dañoo jaamu yàlla ba dee ci erreur mooy yéen ndeke de seen maam yi ngeen di ndamoo di ko bàkkoog seen sëriñ seeg saxaaba yeeg ñoom ñëpp ci erreur leen nekkoon ba ci seen prophète soo waxee ñenn ñu ñu ne waaw professeur la ma ne professeur nag bu yebee prophète ñu ne ko professeur ci pot professeur xam-xamam waru koo jey ba mu yeb prophète ñëw di agresser pas-pasu jullit ñi ci téere bi nga xam ne nii moom rek lañ tuddee kaamil moom la ñu tuddee kaamil nga xam ne mat gu mu mat moo tax ñu tuddee ko kaamil léegi kooku nag nga xam ne mooy professeur saay saay sànqare nee na Omar gi sax jekkul ci moom wala buñ koy jox Omar ñu jox ko Omar mañ doon wooyee Ibnu Hisham Omar Ibnu Hisham amoon na màkka mooy Abu Jahlin Abu Jahlin mi ngeen di dégg Omar la tuddoon Omar Ibnu Hisham mooy turam ñu ko doon wooyee Abul Hakam muy bàyyi intellectuel yëpp waaye keroog bi nga xamee ne ci la weddi yeneen ci yàlla Muhammad wax ko li mu ko wax ci lañ ko wooyee abu jëhlin muy bàyyi ñu réer ñëpp bàyyi koo ñëpp Omar mii tamit moo doon Omar mee rek du Omar saxaaba mu baax ma de mais Omar ma la di abu jëhlin moom la doon mu bind téere tuddee ko la Coran et la culture grecque jël alquran di ko méngale ak culture grecque Omar Sankara di wane ne alquran lu bees amu ci. alxuraan lu yéeme amu ci ndax lu nekk ci alxuraan luy jaaxal nit ñi rek mi ngi woon ci culture gere gi tàmbalee jukki benn benn faatixatul kitaab moo ne na yéemewul ndax lu mat quinze siècle avant yenent yàlla muhammad faatiha mi ngi fi woon Omar Sankare weddi yenent yàlla muhammad ci li mu wax bi muy bi muy wax moom yenent bi ne faatiha jox nañ ma ko muy saar boo xam ne mosula wàcc ci tawraat mosula wàcc ci injiil mosula wàcc ci zabuur moom alquranul karim muy mu bokk ci li yàlla terale yonent yàlla muhammad mu bokk ci li yàlla terale yonent yàlla muhammad Omar Sankare ñëw weddi li nga xam ni mooy faatiha yonent bi ne mosula wàcc mu ne mos naa wàcc junni at ak juróomi téeméer ci ginnaaw rañaan gi mu wax ci lim ci wax suñ gan dana ci dikk alquran ne yonent bi nabiul ummi la mu weddi ko ne loolu amul hmm? alxuraan mu tuumaal ci tuuma bu doy waar yonent yàlla Muhammad di poser question ndax alxuraan ci yàlla la bàyyeekoo wala yonent bee ko waxal boppam wala saxaaba yi ñoo ko kereel seen bopp ba noppi mu ëlbatiku nag di lay di bindi lettre naan mi ngi jéggalu naan dafa gëm yàlla gëm yeneent bi gëmut yàlla gëmut rasulullahi ndax al imaanu al imaanu al qawlu bil lisaan wa tasdiqu bil qaw bil qalbi wal amalu bil jawaarih gëm yàlla da nga koy da koy wax ci sa làmmiñ nga dëggal ko ci sa xol jëfe ko ci say cër mais mënoo wax wax ji nga xam ne moom nga wax muy waxu kéefër la alxuraan naan wala qad qaalu kalimatal kufri wax jooju di waxi kéefër nga wax ko ba noppi bëgg ëlbatiku di rocceeku naan jullit yi nañ ma jéggal ci bu fekkee dama leen a tooñ jubluwuma ci woon loolu mais jubluwoo ko ci mais moom nga ci def naka nga mën a jëlee lu toll ne livre di bind xalaat li nga xalaat wax li nga wax indi ay pas-pasu kéefër ay pas-pasu franc bind ko ci sa téere ba noppi naan jubluwuma ci woon loolu su ko defee loolu moo waral tey seen émission Axiru Zaman ni mu baaxoo di ñëw ci euh, yeneeni thème yu wuute tey ci biir yooyu ñu doon indi yu doy waar ñu indi professeur u Axiru Zaman waaw professeur bii moom professeur u Axiru Zaman dëggi dëggi professeur u Axiru Zaman la dañ daan dégg rek kuy attaqué yonent bi ñu nekk fii ñun di marche kuy saboté diine ñu nekk fii ñun di marche waaye ku waxoon Sénégal ne Sénégal jur na doom ju tekkee du ju mel ne professeur saay saay sànqare ñu ne déedéet loolu amul Sénégal ndekete yoo université am na saay saay bu fa nëbbatu woon nekk kaña nekk yàqkat jël pas-pas yi di ko soppi jàngale pas-pasam bu bon boobu ay ati ati ati ati at ba dem ba yàlla weer ko mu bind ko ci livre. lii yéeme mooy démb li ñu docteur Khadim Mbacke wax bi ñu ko seete doon ko yëgal xew-xew bi ñuy waajal la 30 mu ne li doy waar ci mbir yi mooy nekkul dévout bi mais xool leen pas-pas bu doy waar bi professeur sànqare jàngale na ko ay ati ati at ba ñim jàngal pas-pas bi ñu ngi ci biir réew mi tasaaroog bitim réew di jàngale pas-pas bu bon bi loolu moo gën a garaaw sax livre bi pas-pas bi mu jàngal ay nit ñu tasaaroo Sénégal di ko jàngale moo gën a garaaw livre bi saay-saay Sankharé bind tax na fi ñuy ubbee ci wàllu googu noonu la dolli ko te jox oustaz Aboubacrine Faye te moom moom la ñu dalal mu nekk boroom xam-xam nekk gëstukat nekk ko alquranul karim ñor nga xam ne bi mbir mi yëkkatikoo ba léegi moom ak ñim ko séqal ci sëriñu daara yendalatuñu fanaanatuñu lekkatuñ ba suur naanatuñ ba màndi nelawatuñ nelaw yu doy ngir agressé gi nga xam ne moom la Omar Sankare agressé pas-pasu jullit ñi alxuraan ji nga xam ne nii ñun ñëpp ci la ñu teddee Sénégal jàmm ji ñuy tudd ci Sénégal bu nit mën a tëddee nelaw ba biddanti yeewu sangu naan kafe doxi say soxla jàmm jooju ñu ngi ko jëlee ci alxuraanul karim bu dul woon alxuraan duñ am jàmm jooju noonu le dal gi ñu am ba tubaab bi ñeme Sénégal di fi ñëw di fi indi liñ fiy indi loolu ñu ngi ko jëlee ci alxuraanul karim léegi nag ñu noppi nag di seetaan téere bi ñu teral jenn waa ñëw naan la seen téere bi wéru laa taajaban li xasuudin raaxa yunkiruha la la Muhammadul Busayri waxoon tajaahulan wa huwa aynu alxaadiqi alfahimi qad tunkiru alaynu daw u shamsi min ramadin wa yunkiru lfamu taamal maa i min saqami daf ne woon laa taajaban bul yéemu li xasuudin ci ku añaan ba mel ne saay-saay sànqare raaxa koo xam ne gontu na yunkiruhu di weddi alquraanul karim mu ne loolu bul ko bum bum la yéem tajaahulan réer réeru rek a tax waaye moo gën a xam ne alxuraan saay-saay si ay sëriñam muy ay af ñoom aflaatuun aflaatuun waxul livre am yépp buñ ko dajalee woon dajale woon jël benn baatu alquranul karim teg ko ci bëskil jël livre aflaatuun ak taalibe yi aflaatuun jàngal yépp ñu teg ko ci bëskil benn baatu alquran wat ko tajaahulan nag moo tax réer réerlu moo tax muy jël xalaatu aflaatuun di ko méngaleeg xalaatu yenent yàlla muhammad yenent yàlla muhammad kawaram sax jegewul téeméeri junniy aflaatoon ba mu leen di méngale mu ne te wax wa moom aynul xaadiqi mi ngi amee bëtu ku ñaw ñu lay wooyee professeur sànqare nga xam ne sànkule la def nekk guro gu sànkar di ku yàqu ku bon pas-pas te jaahulan wa huwa aynul xaadiqi al fahimi ñu naan professeur la kii élève bi nga xam ne moo dal sixième sax professeur bii moo ko gën a xeebu bi mu jógee naan mi ngi attaqué lu rëy lii di diiney l'islam mu ne xattun ay nu daw ushamsi min ramadin léeg-léeg jant bi fenk nag ku wànnent xool ko ne jant bi génnul Omar Sankhare dafa bokk ci ñi wànnent waaye jant bi mi ngi ne fàng ci biti amul benn niir bu nëbbu jant bi waaye nag gannaaw moom bëtam neexut moo tax gisu ko te wax naa ko démb ma ne gaa ñi nañ def attention bu baax ndax yenent bi waxoon ne ne masiihu dajaal benn bët lay yor man leen junju la nag dem leen ngeen gëstu ko yenent bi waxoon na ne masiihu dajjaal benn bët lay yor cheikhul xaaj Malik wax na ci kifaayatu raaxibin ne masiihu dajjaal nekkul ñu dul ñuy réeralaate te boo seetee siècle bi ñi bind ci ñuy réeralaate kenn rawu ci Omar Sankharé ci jëf ju bon jii mu def mu ne léeg-léeg tamit ku feebar nga jox ko ñam mu ñam ko ñam wu neex ne safut dara mais fekk gémmiñ gee lewet mais mag ñi nga xam ne seen gémmiñ lewetul taabiina yi taabiina taabiina yi fóore yu mag ya ñëpp bind la nga xam ne buñ ko dajale woon waxuma yeneen ci bi mais ne benn taalibe ci Sénégal bu yenent yàlla Muhammad ki gën a tuuti lim bind buñ ko tegoon ci table Omar sànqareek ñi nga xam ne ñoom mel ni moom ñëpp ci caay-caay ñu toog ci table benn taalibe boobu gën a tuuti ci taalibe yenent bi lam bind moo ëpp valeur li Omar Sankare bind ba na ñi nga xam ne ñoom ñoo yore réew mi la ñuy waxal muy président Macky Sall ak gouvernement am boobu ba léegi bi mbir mi jógee kenn déggu leen ci lu ñaaw la nag lu bon la lu yées la ñun jullit ñi mënuñoo dem rang ci bureau yi yor sunuy carte fal Macky jox ko doole jiñ ko jox mu nekk président de la république mu dem waat ne sénégalais yi dana taxaw ci seeni soxla tey sénégalais yi quatre-vingt-quinze pour cent ñu agressé seen pas-pas digguñ ko moom président bi dégguñ benn ministre am dégguñ benn député lu ñaaw la moo tax ma ne état bi du état julli ñi mais état jàngu bi la lu tax ma wax ko mooy bërki démb bu yàggul yéen ñëpp a fàttaliku bi mu amee ay pas-pas yu nekk ci dëkk bi seeni armeel am ñu fa dem di jël la nga xam ne moom lañ def ci seeni armeel di ko jaay ba ñu génnee ñoom wax matul semaine la ministre intérieur génn ne mbir mi dinañ ci jël dogal ba bu laajee sax ñu jël ay force de l'ordre yóbbu leen ci armée la ñu koy garder waa naka lañ mën a protéger ay armel ay jumtuwaay yuñ fa def ñu koy sàcc te téere yàlla bi ñu agressé ko dégguñ leen kon ñoom duñ état jullit ñi mais état jàngu bi lañ loolu mooy dëkk bu fekkoon li ñuy woote ni jullit lañu bu kenn wax ne dégguñ ko ñu ngi ci dëkk bi ci dëkk bi lañu dëkk tey bu fekkoon ne waa ji président Macky Sall la wax lu bon mi ngi ci kaso bi bu yàggul la am benn leader politique bu toog ci benn dëkk am lu ko accusé tëj nañ ko six mois ci kaso bi. bu yàggul la patron de presse toog am lu mu ko wax ay wax am pas-pas yu mu laal ñu jël ko fanaanal ko gendarmerie lu bon lu nekk parteem yekk ko ko dégguñ ba léegi benn ministre bu bokk ci gouvernement bi bu naqarlu livre saay-saay sànqare bi du député du benn parti politique sax loolu doy waar ci mbir mi ba léegi dégguma benn leader politique bu wax di naqarlu mbir mi te lan la ñuy ŋal-ŋali fan yi mooy université gële nga xam ne moom la semi dugg du oppose oppose opposition du APR du AFP du PDS du PS du réew mi du benn parti politique boo dégg bu dénoncé professeur Sankharé pourquoi te ñu nekk di ngal-ngali fan yi université naan waaw étudiants yi ñuy dóor université ñoo gën a xam ne étudiants yi fan yi il faut mu yëngatu ndax band bi nekk ci seen biir la dafa am benn pombiteer bu nëb bu nekk ci saaku bi moo tàmbalee xeeñ université te pombiteer bu nëb boobu noonu le gouvernement bi buñ ci sëggee waxuñ ci dana yegg ci seen pale ba ñoom ba tax na loolu benn remarque la bu doy waar boo xam ne ñu ngi ciy bàyyi xel mooy lan moo tax professeur Sankharé ba léegi gouvernement bi waxu ci jëlu ci ay matuwaay Oustaz Aboubacrin Faye salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. aouzu billahi min ashaytaani rajim. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lilmuttaqin ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah waliyu saalihin alqaa'il wa qawluhu alxaq وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون سورة آل عمران آية 78 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا المنزل عليه قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم سورة المائدة وبعد قال صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ ولا نحصي sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi asalaamaaleykum wa rahmatullahi ustaz Muxtaar salaam wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokkukat mbokk déglukat yu tedd yi ñu ngi leen di masaw ci dëg-dëg bu ñaaw boobu dëg-dëg bu bon boobu dëg-dëg bu naqari boobu jëmewuñ ko ci lenn lu dul jëme ko ci li gën a màgg gën a sell gën a tedd te mooy téere yàlla bi ñu leen ci masawu Saad Maxtaar ñu ngi lay nuyu. mi ngi lay fay Oustaz Aboubacry. Saad Maxtaar. Mhm. wax jëmee ci alquran du tey la tàmbali. na fi. boo déggee waxu yàlla subhaanahu wa bi ñu ubbee suñu kàddu gi. Mhm. gannaaw bi ñu ko santee moom borom bi. Mhm. mi nga xam ne moo warlul mujj gu rafet ñi ko ragal yal nañu yàlla boole ci ñi ko ragal. amiin ya rabbal wal aaqibatu lil muttaqin dinaay faral di wax ne. al aaqiba al mahmuda lil muttaqina laa gayrahum fi dunia wal axira mujj gu rafet ci àdduna ak ci àllaaxira ñenn rek la ko yàlla jagleel mooy ñu ko ragal kon yitte bi yëpp mooy ñu bokk ci ñu ko ragal yàlla nañu ko yàlla defal amiin yaa yàlla àddu ci alquran te lu mu wax dëgg la mhm. xam yëpp dëgg la amu ci kaf amu ci lu dul noonu moo wax ne am na ci ñoom juif yi ak franc yi ay kuréel yoo xam ne dañuy lem seeni làmmeñ jëmee ko ci téere bi te mooy alquran ngir seen wax yooyu ngeen yaakaar ne ci alquran la bokk te loolu moom yàlla nee na wa ma huwa min alkitab te loolu bokk ci alquran boole koog ñoom ñuy wax ne wa huwa min indillah wa yaquluuna huwa min ñu booleeg di wax naan loolu mu ngi jógee ko ci yàlla yàlla ne wa ma huwa min indillah allahu akbar xoolal rek tartib bi xoolal rek waxin wi wa yaquluuna ala allahi alkadib naa jëkkee loolu waaye pour won ñu tegginu wax ak waxante moo tax jëkk tëbul tëb rek wane ne dañuy fen mais lim ci mujjee wa yaquluuna ñuy wax ala allahi ci yàlla di waxal yàlla ay fen yoo xam ne ñoom ñoo ko sosal wahum yaalamun te fekk xam nañu li ñuy wax lan la kon lii du ñu jaaxal donte la métti na garaaw na parce que du jullitu Sénégal rek adduna jullitu adduna bi lañu ñu agressé loolu garaaw la te réew mi bi ñu jëlu seen matukaay autorité yi ni nga ko waxee sànq dégguñu leen te lu ne lu ne ñu ngi koy aar di ko taxaw waaye lii bu fekkee seen ñu jullit wér na ci la ñu waroon a addu mooy priorité bi léegi lii mooy priorité bi parce que dafa laal ngëm ah dafa laal ngëm te mooy alxuraan dafa laal loo xam ne kenn mënta dem mu des dafa laal loo xam ne ay milliards nit ñoo ko gëm ci àdduna bi. Mm-hmm. nguur euh, état bi. Mm-hmm. mais ana ñi woote droit de l'homme xanaa lii du du du mbiru l'homme mm-hmm. xanaa du mbiru l'homme kon loolu moom muy ubbi Ali Imran ay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett bi ci des. Euh, état bi euh, opinion internationale. lañ gën a ragal ci borom international. borom international sax muy subhaanahu wa taala. te problème ragal nañ ñu ci waxee rek ñu ne non euh, liberté d'expression réew mi léew liberté démocratie te liberté mayewul nga saaga président. déedéet démocratie mayewul nga saaga président. mais maye na nga saaga pas-pasu julli. nga saaga borom président. te mooy borom bi subhaanahu wa loolu nag mooy dili bi nga xam ne daanaka amul lu ko féete. mooy président am na article bu koy aar. article quatre-vingt mais alquran moom amagul article bu koy aar. loolu loolu ñaaw na loolu ñaaw na loolu ñaaw na loolu ñaaw na loolu waaye jullit ñoo nekkul ay jullit am na ci réew moo xam ne waa ji Sankharé waxal na ko boppam. Mm-hmm. nee na ba mu ko waxee Algérie dañ ko rawale. ndax dañ ko naroon a rey ko bëggoon a rey dañ ko naroon a rey. Mm-hmm. dañ ko rawale yóbbu ko hôtel ba te ñëpp ñi ñi ko doon ut xamuñu woon ne ci hôtel boobu la nekkoon. bu ñu ko fekkoon atoon nañoo taal otol ba ah kon réew mi ñu ngi leen di woo pour ñu taxaw jël ci seen matukaay wa illaa lii xew dina xew te yàlla junj nañu fan yi junj boo xam ne dégguñ ko li xew université waroon nañ ci bàyyi xel waaye bàyyiwuñ ci xel ndox mi mu wis Dakar waaw te du jamonoy nawet sax ndox mu wàcc mu nekk am na lu muy junj am na lu muy jaan wallaahi wallaahi wallaahi yàlla nag mi ngi wàccee ndox am lu ñuy wax ci professeur Sankharé bu ñu gëmmee juguñ ci mbiram leneen ay wàcc lu wuteeg ndox mii nii ñu gis nii nga xam ne bu daan taw fekk sabetul yenent bi day ñaan yàlla ndax xam na ne ndox mën naa indi lu nekk lu ne saxee saxee saxee sallallahu dafay ñu ngi jug di dem ay jam ñaa joog di inauguré yu naan dañuy tabax ay nangam ak dara tous dara lii mooy priorité bi léegi priorité bi day tooñ nañu jullit ñi moom tooñ bi gën a rëy ci tooñ yi tooñ bu nit mës tooñ nit ci kaw suuf. tooñ nañ ko ummal islaam yi. léegi nee na yonent bi du nabiyul ummi. yonent bi du illettré amul fenn fu ñu ko bind ci alquran. incha allah euh, loolu moom dana ma kontaan lool lool la bëggoon a wax yëpp damay bàyyi ma dellu siwaat ci euh, tomb par tomb ci li mu mhm. loolu. Mhm. pour mën a firndeel loolu. damay delluwaat ci yàlla mi mu tiiñal premièrement. subhaanahu wa taala la wax subhaanahu wa taala. Mhm. gannaaw laayaat yooyu ñu dégg yeneen di laayaa ngi ñëw. boole koog yeneen i ahadis yàlla addu wax ci alquran ne wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan li kulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin suratu naxli aya 89 yàlla nee na wàcce naa ci yow yow yónente bi ab téere la boo xam ni lépp loo soxla lu lënt la cay leeral loola téere booboo ko tax a jóg looloo tax a jóg tibyaanan li kulli shay allahu akbar mooy lépp lu doomu aadama soxla ci dundam mi ngi ci biir lu koy jural teraangam ëllëg teraanga bu dul jeex yàlla nee na mu ngi ci biir téere bi hmm. maanaam mu tàggoo ay problème mu àdduna problème sociaux problème problème problème problème mu jural ko teraanga honneur ak bonheur pour ñëw ëllëg mais ci àdduna la koy tàmbalee mu nekk prolongation ba bu yeggee fale fekk fa loola tibyaanan li kulli shay alquran daa ñëw pour leeral lépp lu doom adama soxla ci kaw suuf ak lu koy jural itam teraanga ëllëg hudan njub la moom alquran wa rahmatan yërmande la waaye mbég la ñeel ñi nga xam ne ñoo ñuy gëm yàlla kon loolu rek moom moom mooy dëgëral pour fi ma jëm day jubal ñi ragal yàlla. day jubal ñi ragal yàlla. waaye ñi ñeme yàlla da leen di réer. da leen di réer dañ ciy réer. dañ ci réer waaw dañ ciy réer ndax yàlla subhaanahu wa li dal Sankare du jàmm. Mhm. seytaane ko këf. yàllaa ñu nettali ci alquran ne. watlu alayhim naba alladi aataynaahu ayatina fansalaxa minha fa atbaahu alcheytaanu fa kaana min alxaawin waaw jàngalal ma téere waa jooju nga xam ne dañ ko jox njub papaam ak yaayam judd ko ci lislaam tànnal ko turu rafet di Omar mu doon ab jullit ci ni ci yay waajuram def ci moom mais mu jékki-jékki rek wëlbati loolu fansalaxa minha mu summeeku ca ba jeex ba dara deseetu ko ci loolu dul turam ndax lii rekk wane na ko même bu waxee ne ab jullit la jëf ji moom wanewul loolu wax ji moom mun naa wax waaye li mu jëf moom dafay safaanoo akuk njullit lii mooy li am fan salaxa minha fa atbaahu cheytaan cheytaane daal di ko occupé moo koy dicté moo koy wax mooy fa kaana min al xaawiin mu bokk ci ñi réer mu bokk ci ñi sànk te seytaane yooyu mooy philosophie mu gëm allahu akbar philosophie mu gëm moom philosophie ñoo ko gën a convaincre ci yenent yàlla Muhammad ndax xamul ku yenent bi ñoom aflaatuun la xam allahu akbar kon lii mooy alquran mhm. suratul araf xool ci yàlla teg mhm. walaw shina la rafa'naahu biha walakinnahu axlada ila al ard mhm. wattaba hawaa fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatrukuhu yalhas dalika masalul qawmi alladina kaddabu bi ayatina suratul araaf yàlla nee na waa jooju mu mel melokaan woo bu ma neexoon ma jëlee ko ci situation boobu mu ne pour teg ko ci yoon wu jub waaye nag walakinahu axlada ila al ard moo tànn moo préfère moo préfère sax des ci loolu moom moo tànn des ci loolu. soxlawul yàlla jëlee ko ci loolu bugg ko nee na li mu gënal mooy mu continuer ci loolu. bi mu toppee loolu fa mu jëm mooy lañ koy dig ca loolu mu def moo jur ci ñoom muy ab ab pat làmmeñam ni xaj di def yàlla nee na misaalu waaju ñoom ngi mel ni xaj ñaari xas moo gën a rëy ci alquran bu ko yàlla di tudd rek ci ñaar la jëm. boroom xam-xam bi jëfewul xam-xamam ak ki nga xam ne yàlla da koo jox njub mu bàyyi fa njub boobu dem tànni cànkute cànkute allahu akbar kamasalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatrukuhu yalhas te mooy liñ koy dig ci ay avance avantage yi ñu koy defal ak la nga xam ne moom la ñuy boole ci livre bu ñu ak encouragement yooyu ñu koy defal looloo koy yóbbee lool bref Sankhare nee na mhm. yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamoon na mbind mënoon naa lire déedéet monsieur le professeur loolu amul alquran a wax ne mu ngi nii baatu ummi bi ngay dàq alquran da saxal ñaari yoon ci yonente bi ñetteel bi mu saxal ko ci umma bi yëpp ñaari yoon bu njëkk bi ñaari yëpp ci suratul araf beneen bi nga xam ne pour umma walladi baata fil ummi yii na loolu umma bi yëpp fil ummi yii na ci xeet woo xam ne mosuñoo mën a liir mosuñoo mën a bind ci ñoom la yàlla yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alladina yajidunahu maktuban fi tawraati annabiyul ummi yonente bi nga xam ne ab ummi la ay illettré la boo xam ne mënut a jàng mënut a liir ci suratul araf aaya 157 ba aaya 158 nga xam ne boo demee ci tawra nga fekk ko fa dem évangile fekk ko fa yajidunahu maktuban indahum fi tawrat wal injil yaamuruhum bil maaruf wa yanhahum anil munkar ñu ne nabiul ummi la nabiul ummi loolu la yàlla waxal boppam subhanahu wa taala kon loolu mooy bu njëkk bi ñaareel bi yàllaa waxal boppam di wax yonent bi sallallahu qul ya ayyuha nnaasu inni rasulu llahi ilaykum jamian alladi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي كون باتو أمي نقوم الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون سورة الأعراف آية 158 yàlla nee na yow yónent bi waxal nit ñi ne leen yéen ñëpp man de yàllaa ma yónni ci yéen ñëpp mm-hmm. inni rasulullah ilaykum jamia yéen ñëpp yàlla ma yónni ci yéen yàlla mi nga xam ne moom moom nguuru asamaani juróom-ñaar ak suuf yàlla mi nga xam ne amul kenn ku yelloo ñu jaamu ko ci dëgg ku dul moom moom miy dundal tey dund ba faw te du dee te ku dee ku dund rek moo la dundal mooy kii rey te bu ku faatu moo la rey kon gëm leen yàlla moomu fa aminu billahi wa rasulihi ngeen gëm ab yonentam boobu nga xam ne annabiyil kon monsieur le professeur ñaari yoon a ngi noonu ci biir alquran mhm. bu dee am na yeneen yoo xam ne mun nga ko layalee loolu nga wax mhm. nga indil ñu ko mhm. suratul araf yàlla neen a gëm leen ko ngeen topp ko ndax ngeen jub waaw laallakum tahtaduun wattabiu laallakum tahtaduun waaw kon mu ngi noonu kon daal euh, yàlla yàlla moo wax sa professeur Saay Saay sànkar wax léegi nag léegi nag mu des ci ki gëm. kan lay gëm ci ki gëm. franc yi nag mën nañoo ànd ak professeur Sankharé. ñi nga xam ne ñooy noonu yenent bi mën nañoo ànd ak moom ndax livre bi ni mu amee ñu mu naqari ci jullit ñi noonu la amee ñu mu neex lool ba mu doon jaay ñu jënd ci téeméer maye ko te ñi mu neex bokk na ci ñi ñu nekkal ci réew mi ñi nga xam ni jullit ñu ñàkk fayda yi lu leen dal ñoom ci seen pas-pas ñoom ñëpp ñu jug xeexal leen te boobu ba léegi ñoom seen pas-pas boobu noonu le déggoo ñun buñ ñu agressé ak léegi kenn ku bokk ci ñoom jug ne ñun ñu ngi koy métitlu kan nga dégg ku dul jullit kenn bi sànqare jugee wax waxam ju bon ji ba léegi ñu ne ah wax dëgg réew mi kat dafa am jàmm ju fi nekk ñun ànduñ ci jëf ji te ba pare ñu naan dialogue islamo-chrétien ñu koy wax l'islam dialogue dialogue fan ci lan lay teg mooy jullit ñi ñoo ñàkk fayda tey bu doon ñoom la ba léegi dégg nga politiciens yi ñoom ñëpp ñu génn def seen déclaration saay-saay yooyu waaw ñun réew mi réewum jàmm la réew mi duñ nangu kenn ku fi nekk di agressé keneen man jullit laa mais ànduma ci loolu kooku def ndax jullit du tooñ waa léegi yow jullit du tooñ bu ñu tooñee jullit nag moom kenn du ko layal yow buñ dóoree jàmbur nga jooyal ko bu buñ la dóoree doo jooy mooy da ngaa ñàkk jom moo tax Sénégal waxuma la problème bi kese lii mu bind mais dafa war a yee nit ñi ñu xam ne Sénégal politicien bu jullite bareegu fi ndem am na fi. waaw tur yi moom ay turu julli mais pas-pas yi moom leneen la. dama yéemu da koy da koy feeñal acte bu rek day feeñal kenn ku ne ni nga doon. mooy wa ida laqu alladina amanu qaalu amana wa ida xalaw ila shayatin qaalu inna maakum innama nahnu mustahziun loolooy li am li ñu gëm mooy pression opinion publique bi franc-maçon yi leen di financé ñooñu lañ gën a gëm ci yàlla mi leen bind bien sûr looloo am mooy tey ragal nañ ne bu ñu laalee lenn lu jëm ci loolu la ñu ne ah mais nag euh, liberté nangam nangam liberté mooy maye ñu saaga téere yàlla bi doya dal suñu pas-pas jullit ñu tekkee di toog naan mais xalaatam la wax mais xalaatu kéefër yàlla dafa leeral ci tàmbali baqara wa min kon du ñëpp am na wa min an naasi am na ci biir nit ñi ñoo man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil aaxir wa bil yawmil aaxir te kat wa maa hum bi mu'minin allahu akbar gëm nañ yàlla gëm nañ yeneen bi te yàlla comme waa ji bi mu bindee livre livre bu bon bi teg ci lettre bu bu tappale bi allahu akbar naan damaa gëm yàlla damaa gëm yuxaadicuuna allaha walladina aamanu wa maa yaxdacuuna illa fee mu ne wa maa yuxaadicuuna illa anfusahum wa maa yashacuun fi xulubihim maradun marad boobu moo feeñ ci kii ak ñeneen ñi mel ni ñoom te addu wuñu fi xulubihim nekk na ci seen xol yi mala maradun sànkar sànkar sànkar sànkar sànkar kon ci sëñ Maxtaar kon ñaar ummi kon tomb boobu noonu le leer leer tomb bu leer la waaye lii wane na yonente bi mun tal beneen bi question question dul waaw ma tuuti mm-hmm. wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taxutuhu bi yaminik idan lartaaba al mubtilu la jëkk munoo woon a liir munoo bind mm-hmm. loolu kon déjà leer na surat ankabut aya 48 mhm. kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngut munta liir munta liir munta alxuraan a ko saxal alxuraan a ko saxal yàllaa ko wax ñaari laayaa ngi noonu luy firndeel loolu mhm. loolu ci gàttal mooy li nga xam ne moom mooy tontu laaj boobu moom bu yonente bi mënoon a euh, bind di ko def mhm. mën a liir di ko def xam nga li ko li ko réeral ba tey mooy yenent biñ ne jàngal ñu naan jàngul yenent bi amul benn professeur bu ko doon jox leson mu koy tari ñu koy bindalaat yàlla def ne bal nazalahu nazalahu ruuxul amini ala qalbik keroog bi ko jiblil ne jàngal boobu la ñëw jël lépp sol ko ci xol bi bim solee lim ko sol ci xolam mu nekk ci lépp installé wu ci amul droit génnee ci dara ndax dafa mel ne secret d'état la ci moom jibril bu ñëwoon di ko indil aaya aaya bi ko jibril di indi xam na aaya bi mais sañu la wax aaya bi te jibril newu ko wax ko comme secret d'état la moo tax ci suratul qiyaama muy wax ni euh, laata laa tuharrik bihi lisaanak li taajala bi na inna alayna jamaahu wa qur'aanahu fattabi quraana mooy jibril bu ñëwaan naan ko suñ borom nee na qutila daabiral qawmi alladina mu bëgg a wax zalamu mu ne ko attention suñ borom ne laa tuxarik bihi lisaanak li taajala bii parce que da nga war a am sëriñ a am sëriñ sëriñ bu lay sax oh. doonte lim lay sax man nga ko mais bokk na ci tegginu jàng ki lay jàngal tuuti waaw moom da doon def bu jibril waxaan balaa muy jeexal muy jëkkante fa taala allahu almaliku alxaq wala taajal bil qurani an yuqda ilayka wahyu wa qul rabbi zidni ilma kon jibril bu ma saan a ñëw di ko sax di ko jàngal mu jàpp ne comme miin na mbir mi léegi aajootul jibril continue allahu akbar yàlla woon ko ne mbir mi du noonu bul gaawoon tuuti mukk pour jéem man wala xam ci dara bu ko def lu ci aju ci xam ko ak xam ak sew-sew yaak la ca aju lépp yàlla ne man dinaa ko def kon topp ko mu doon sa sëriñ nangu la am sëriñ nangu la lu la lu la wax rek. lu la wax rek nga jaar ci. léegi na looloo ko réeral te loolu moom. ku ab euh, philosophe jàngal munu koo firi. munu koo firi allahu akbar. munu koo firi. ba tax na loo xamul bul ca wax. saxee looloo jaadu. professeur bu fekkoon jub na maandu. Mhm. day yem ca lañ ko jàngal ci grec. te moom pas-pasam bii mooy pas-pasu sunu njiit yu baree bari mooy pas-pasu kéefër bii la ñu yor. soo gisee waxuñ ci Omar sànqare dañoo mel ne Omar Sankhare mais ñemewuñ a bind comme moom ñu ngi bàyyi xel ñi ñemewuñoo bind comme moom mais pas-pas boobu lañ leen jàngal moo nekk ci ñoom su ko defee kon point boobu leer na di leen fàttali ne yéen a ngi déglu seen émission aaxiru zaman tey ñuy waxtaane benn professeur u aaxiru zaman ci biir émission aaxiru zaman muy professeur u aaxiru zaman bi ne université euh, Cheikh Anta Diop euh, ci fac euh, lettre tabaarakallaahu di fa di fa jàngale pas-pasam bu bon boobu ba xëy bind ko ci livre professeur bi nag fan yee moom ngeen fi déggoon muy yuuxu 2012 bi ko ambassade bu France bañalee visa bi mu doon demandé muy yuuxu ba étudiants yi doon ko ci jàppale di wax ne gàcc la ci Sénégal ñu am professeur boo xam ne dafa agressé. agressé ci wàllu grammaire mu dem ambassade bu France di ñaan visa ñu bañ ko ko may. ndekete problème bi bokkoon na ci bor bu mu amoon France fa mu doon fajoo. kon bi muy bind livre bi jamono yooyu yëpp feebar moo ko topp. boobu la waroon a fexe nag ba livre bi bu mu génn. su ko defee nag livre bi mënula tëb dem mooloo ji ko France. ba noppi xëy coow li jug mu naan nañ ko jéggal jéggal gi moom bokk na ci liy tax mu mën a am ci xolu jullit ñi livre bi na joxe lépp ñu taal ko. moom bi mu ko waxee ca guddi ga ñu publier euh, lettre bi bi ma xëyee laa wax ci émission ne man de loolu bokk na ci liy tax lenn li ne woon sama xol dëñ. mooy ñu dajale mbooleem livre bi yóbbu ko esaat wala bayaal ñu ne livre bi kat mbooleem liñ ci génne woon mi ngi nii taal nañu lépp duñu ci génnee ti benn su ko defee la doon tàkk ci xolu jullit ñi mën a fay. gis nga bu ñu jàppee ñi ñiy def drogue wala yamba dañu koy yóbbu barab. ñëpp di gis ñëpp di gis. ñu sotti ci essence taal ko. Mhm. lii moo gën a garaaw yamba. junni yoon. parce que yamba mën naa mu dof loola ñu faj la nga wéraat wala mu am noonu. mais lii da lay rey ñu dugal la safara nga des safara jahannam da yàq sa pas-pas dootoo nitiiti mhm. mala sa moo lay tane ndax boo toppoon naa yooyu nga xam ne moom la ñu ubbi woon dinga gis borom bi subhaanahu wa taala bi muy tëkk tëkkale doom aadama ak mala mais daa mujj sax wane ne kat mala moo ko tane balhum adal bal mhm. ulaayka humul xaafiluun loolu la jeexalee wax ji kon loolu mooy maanaam li nga wax nga xam ne doroog ni ko nit di jëlee mu yàq xelam lii tamit da nga koy liir mu yàq sa pas-pas. sa pas-pas te pas-pas booboo gën a garaaw xel moo gën a garaaw xel fuuf parce que pas-pas moom jiitu ci xel ci tartib bi parce que diine dafa ñëw pour sàmmal nit ki pas-pasam sàmmal nit ki xelam sàmmal ko alalam mais sàmmal ko deram sàmmal ko bakkanam kon pas-pas buñ ko yàqee rek moo tax ñu farataal jihaad ngir aar pas-pas loolu mooy li nga xam ne mooy di am kon. Euh, ceeb maxtaar tomb ñaareel bi mooy euh, Sankare nee na Alquran wàccewuñ ko du wax yu wax yu wàccewuñ ko ci yonent bi dañ ko ilham dañ ko ilham yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bal mu waxaat beneen wax mu ne saxaaba yi doon bind Alquran ñoom ñoo ko wax saxaaba yi doon bind Alquran seen wax la seen wax la waaye di waxu yàlla subhanahu wa astaghfirullah yàlla jéggal ci dégg gi euh, ñiy déglu ñu ngi leen di ñaan ngeen jéggal ñu kàddu yooyu baamtuwaat bëgg lu wóor bëgg lu leer rek moo tax ñuy waxee nii te ku delluwaat ci téere bi walla journal ba di nga fa fekkaat lii nga xam ne moom mooy li am pour leeral loolu alxuraan di ñaan waxu yàlla la moom muy poser question di laajteem ndax waxu yàlla la moom ki ne ki ne gëm naa ki ma gëm mais lim na waxam la nga ne ndax lu ndax est-ce que waxam la te nay lay woote ne gëm nga ko. gëm nga ko gëmoo ko gëmoo ko gëmoo ko ngir leeral loolu dañuy delluwaat ci alxuraan dinañ fa fekk yàlla di wane ne alquran da wax lu da wax yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du benn yoon du ñaar yoon ay barab ayat yu bare bare bare mooy ñëw ci alquran bi ci jëkk boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala wax na ci loolu mooy inna awxaynaa ilayka kaaf mu xaatab boobu mooy muhammad sallallahu waaye mu mu def ko tashbi liñ ko wax yu comme ni ñu wax yoo woon nuux ci ak yonent yooyu jiitu woon ibrahim ismail ishaq yaqub asbaat isa ayub yunus haarun suleyman wa atayna daawuda zabura noonu la ko yàlla waxe kon baatu awxaa loolu effectivement ñëw na ci alquran baatu ilham mam ñëwul baatu ilham ñëwul fenn. wax yoo ñëw waaw wax yu moom moo ñëw loolu muy weddi looloo ñëw loolu yàlla wax na ko subhaanahu wa taala wax na ko ci euh, suratu nisa aaya 163 waaw bi ci des ba tey euh, mooy waxu yàlla subhaanahu wa di wax ne wa man azlamu mimman iftara ala كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل, أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما بما تقولون على الله الكذب على الله غير الحق wa kuntum an ayaatihi tastakbiruun suratul an'am aya 93 yàlla nee na ana kan mooy ki gën a mën a tooñ koo xam ne day duural yàlla ay fen duural yàlla ay fen wax ne dañ maa wax yu te waxu yuwuñ ko kon baatu wax yu ñëw na foofu di wane borom bi subhaanahu wa di wax walam yuuha ilayhi shay te kenn wax ko dara loolu am na lu muy tekki wa man qaala sa sa sa unzilu misla ma anzala allah danaa hmm. wàcce dañu wà des wàcce la nga xam ne lu mel ni yàlla wàcce hmm. yàlla nee na boo gisoon say say soosu bu hmm. malaaka yi ñëwee di leen faat di leen forcer di leen fitnaal di leen wax génn leen ànd ak toroxte génn leen ànd ak toskare génn na ruu yi génn ànd ak mbugal bu méttee méttee méttee ci lépp loo xam ne da ngeen ko rëy ci lu dul dëgg ci li nga xam ne moom la yàlla wax suratul an'am aaya juróom-ñeent fukk ak ñett ba tey borom bi yàlla subhaanahu wa taala waxaat na ci baatu waxyu yàlla wax ci alquran ne qul innama ana basharu mithlukum yàlla nee na yonent bi nee na subhaanahu wa taala yonent bi yàlla daa wax loo daa wax yoo yonent bi yàlla daa wax loo bi ne ko waxal nit ñi ne leen nit la comme yéen waaye li ma wuuteeg yéen nag mooy yuuxaa ilayya annama ilahukum ilahun wahid kon baatu wax yu boobu muy weddi loolu ñëwaat na ci suratul kahfi aaya téeméer ak fukk yàlla dellu waxaat ci alquran ne wa laqad uxiya ilayka wa ila min qablik لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين سورة الزمر آية 105 yàlla nee na wóor na ne waxyu naa la ku ñu waxyu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon baatu waxyu ñëwaat na foofu li ma la waxyu moom laa waxyu yoon ñi la jiitu woon ci ay yonent te mooy min qablik ne boo bokkaale gis nga kon bokkaale ni mu garaawee ba tey yàlla del waxaat ba tey ci baatu waxyu kooku suratu zumar aya 65 waaye yàlla waxaat ci baatu waxyu sharaa lakum min addiini maa wasa bihi nuuxa walladi awxaynaa ilayka yaa muhammad kon wa maa wasaynaa bihi ibrahima ila axiri aya kon baatu awxaa ñëwaat na te mooy mu jëm ci waxyu mbir mi du ilham amul fenn ci alquran fu yàlla nee ne alham wala ilham amul nekkul lu ñu yenkewal ñu ko yenkewal muy wax du itam du waxu saxaaba yi saxaaba yi amul fenn saxaaba yi waxuñu ko waxu yàlla la subhanahu wa mu wax yu ko jëme ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam boobu suratu shura aaya fukk ak ñett beneen bi ci top ci ci tomb bi pour mu jeex ba pour ñu dugaat ci beneen tomb وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا yaakaar naa loolu dana yellul ci kenn ci mbindaafoon yi yàlla di wax ak moom lu dul ci wax yu kon du wax ak nit comme ça comme nii waaye day wax yu wax yu lay doon du ilham comme ni ko waa ji waxee waaye wax yu aw min waraa'i xijaab aw yursila rasula fa yuuxiya bi idnihi ma yashaa innahu alimun xakim suratu shura waaye li ma soxla woon mooy wa kadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina déglul fii bu baax maa kunta tadri mal kitaabu wala al iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لتهدي إنك لتهدي تهدي من تشاء من عبادنا وإنك لتهدي لتهدي إلى صراط مستقيم سورة الشورى آية 51 ba آية 52 lan la yàlla wax wa ma kaana li bashari an yukallimahu llahu illa waxya baatu wax yi laa soxla woon foofu mm-hmm. amul kenn ku yàlla di waxal lu dul ci wax yu lay wax ak yow surtout mm-hmm. suura wa kadalika awxaynaa ilayka mm-hmm. naka noonu laa la wax yow yow yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa kunta tadri mal kitaab xamoo woon luy téere bi xamoo woon luy mbind xamoo woon luy liir xamoo woon luy aju ci loolu lépp walakin jaalnaahu nuuran walakin jaalnaahu na di bihi man na nasha yàlla nee na waaye man yàlla maa ko def mu doon leer ma di ciy gindi ku ma neex man yàlla subhaanahu wa taala xolu yeneen ci yàlla Muhammad leera ci ne leera ci ne ñoom aflaatuun seen xol yi lëndama lëndama ci ne wallahi wallahi mooy mooy mooy mooy sëriñu sànqare yi wallahi wallahi wallahi kon loolu leer na wallahi wallahi mooy question bi ci des bu mujj bi mooy mm-hmm. yonent bi gën ñëpp raw ñëpp sut ñëpp te yàlla da koo jàppaloo alquran loolu aussi par occasion mhm. ma profité ci yëpp sëriñ daara yi bu ma leen ndokkeelee mhm. waaye mase leen coono mhm. ndax am nañu sas bu te mooy bu ñu gestu dara na métti waaye ñu muñ te xam ne teraanga yëpp mu ngi foofee ndax yàlla daa waxal yonente bi fastamsik billadi uxiya ilayka innaka ala siratin mustaqim loolu li muy tekki muy képp kuy sëriñ daara li moo war a doon say bët. Mhm. waroo xool leneen lu dul loolu. jafandul bu dëgër ci liñ la wax yu kon baatu wax yu ñëwaat na foofu. Mhm. jëm ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam amu fi lenn luy wane ne saxaaba yi. Mhm. donte li yonent bi moo leen yar. waaye amu ci lenn luy wane ne ndikkite alquran ñi ko doon bind seeni wax la feeñ na ci déedéet kon lii la yàlla wax wa innaka al innaka ala siratin mustaqim wa innahu la dikrun lak wa li qawmik wa sawfa tusaluun kon sëriñ daara yëpp nañu bàyyi xel loolu lu ñu man di nekkee lu ñu man di def lépp bu dee teraanga it yàlla subhaanahu wa taala dina leen ko laaj kon jafandu leen bu dëgër ci jàng alquran ak jàngale ko yaru ci yare ci nañ ci dëgg te xam ne ñu ngi ci yoon wi buñ ci teggi tànk macha allah te sellal te xam ne yàlla la ñu amal affaire subhaanahu wa taala kon sëñ Maxtaar am na solo mbir maa ngi noonu boobu leerati na jërëjëf oustaz Aboubacrin fay tey moom la ñu dalal muy sëriñu daara tabaarakallahu ñu laal li nga xam ne mooy moo tax daara di dara ab président fi laaloon daara waa daara jug dal ci kawam mu tegaat daara tey nag kenn ci njabootu président moo laal li tax daara di dara président jugut président barki démb lañ lakk benn daara Medina nga jóg ne da nga tëj daara yi yi légalut am na professeur bu légalut ci professeur yi tëj ko barki démb la daara lakk kër gu lakk med ci Medina lakkaale daara am ñu ca faatu tey kii moom dafa nar a faat téeram bi bu génnee mhm. daa nar a faat ay junniy junni pas-pas te faat pas-pas ay millions bi te faat pas-pas moo gën a garaaw faat bakkan. waaw bakkan wallaahi léegi nga ne woon danga tëj bépp daara ju légalut professeur bi nag légalut ndax professeur bi li muy jàngale ak njubadi la te njubadi weesuwut yàlla mi nga xam ni. lillahi maa fi samaawaati wa maa fi lard wax waxam ne téere bi man maa ko wàccee innahu la quraanun karimun fii kitaabin maknuunin laa yamassuhu illa al mutahharuun tanzilun min rabbil alamin tanzilun min rabbil alamin téere bu sell téere bu laab téere bu set téere bu mat bu bàyyeekoo ci borom bi tabaraka wa taala yàlla ne téere bi maa ko wàcce mu bàyyeekoo ci man am kenn ci réew mi agressé wax jooju noonu le ne téere bi day laajte ndax ci yàlla la ko wala déet yàlla ne man maa tontu ci alxuraan ne ci man la bàyyeekoo li aay yi nga fi wax yëpp yëpp yëpp yëpp ñëpp dégg ko yàlla waxal ko boppam ci alxuraan léegi mu ñëw naan ndax ci yàlla la bàyyee ko wala déet waa léegi ku bëgg a tëj daara ju légalut professeur bii légalut légalut dañ ko tëj mais du ngeen ci wax ndax ñoom François Hollande ngeen ragal ñoom Obama ngeen ragal opinion internationale ngeen ragal banque mondiale ngeen ragal ONU ngeen ragal organisme góor jigéen ak franc-maçon yi ngeen ragal waa ana m ne touche pas ma constitution ana ngeen mais tuuse nañ seen religion fu ngeen ne tuuse nañ seen téere fu ngeen ne tuuse nañ seen yenent tuuse nañ seen borom fu ngeen ne mais du ngeen wax ci loolu article yi nga xam ne moom la Cheikhul Hadj Abdoul Aziz naan maa la lanaa kot siwal quraan yi wamaa lanaa kot siwal quraan yi wa man ataa bi xayri fa huwa kotu cheytaan yi allahu akbar ñun amuñu kot bu ñu gëm bu dul alquran article nangam article nangam gëmuñ ko ñun ñi ngi gëm aaya sàngam saar sàngam la ñu gëm ndax loolu mooy code bi bàyyeekoo suñu suñ borom mais yéen yàlla bind leen fii ahsani taqwim wallaahi min sulalatin min tiin wallaahi wallaahi ak nutfatan fii qaraarin makiin ila qadrin maalum fa qadarna fa ni'mal qadir ba ngeen toll ni ngeen toll am xel yàlla di leen teral ngeen di wodd di lekk di naan di nelaw di yeew yàlla delloowu leen ko njukkal am ay nit ñu dajaloo tëral benn constitution am ku ñëw ne dafa bëgg dindi benn article mu jaraleen seen bakkan ne dañuy deemee du fi amee tey ngeen toog mel na nekku leen fi te yéen a ngi fi ñu laal seen diine kenn déggu leen. nekkuñu fi xam nga nekku fi te nekkoo fi moom mooy di am. loolu alhamdulilah. su ko defee mbir yi noonu la tëddee. Sankhare dafa ñëw indi lu bon mais lu bon li dana am lu bari lum ñu jàngalaat kuy jullit nga yeewoo ci. li yahlika man halaka an bayina wa yaxya man xaya an bayina su ko defee beneen bi mooy étijan yi nekk université nañu am fayda ci seen bopp Sankhare moo feeñ mais am na yeneen i professeurs yu mel ne Sankhare yu nekk université am leen fayda ju toll ne professeur bu ñëw di leen jéem a ci seen pas-pas ngeen wax ko lu bon dàq ko mu génn mu jaral leen loolu moo jar grève. grève moo jar moo jar grève. lekk yu naqaree togg yu fanaan ak bourse yu yéex yooyu seen wàllu bopp la. mais ay jullit ngeen du ngeen nangu taxaw ci kanam toog ci banc benn professeur taxaw ci seen kanam di jël xalaatu aflaatuun ak ñu mel ni ñoom di ko teg ci téere yàlla bi. jaaduwul jaaduwul su ko defee loolu nga xam ne mooy li am am na yoo xam ne yéen laa koy bàyyeel ngeen ñëw ci ay yeggee mais am na yoo xam ne réalité yu tegu beneen bi mooy ci wàllu waaraatekat yi. Mm-hmm. bëri na ñoo xam ne ñu ngi ci rajo ki télé ami émission bi am mbir mi amee ba léegi kenn déggu ñu wax ci. te leen di wooyee oustaz jox leen i émission loolu nag ak naa feq la man maa ko wax man Makhtar Sarr maa ne oustaz yooyu dañoo naa feq bépp oustaz boo xam ne yaa ngi ci rajo Sénégal wala tele bi mbiru sànqara yi amee ba léegi nga tiim aay yi di ko firi te dénoncé woo ko naa feq nga. ndax mënoo di jël téere yàlla bi ne yaa ngi koy firi téere yàlla bi am ku ne li ngay firi ndax cee yàlla la bàyyee ko ba noppi nga toog dénoncé woo ko su ko defee loolu nañ ko dégg nañ xam ne am mënoo toog Sénégal ne yaa ngi wax soo waxee ñu naan waaw actualité actualité waaw actualité ñëw waaye ragal nga émission bi nga ne boo ci waxee dénoncé sànqare ñu dàq la ndax sa kilifa gi lay fay weer wu dee waxagu ci kilifa gën a jël waxagu ci ragal nga boo ci waxee sa émission yàqu wala ñu dàq la ci sa émission waa léegi émission moo la gënal mission yow nga war a dox mission bu suñ borom mais mission suñ borom bi émission bi nga yor bañ ñu dàq la jaral la nga bañ a wax ci mbir mi ana lan ngay waxati nit ñi ñu lay déglu lu mu doon li kulli makaanin maqaal dañ ne bërëb bu nekk ak dañ fa war a wax li kulli xaadisin xadiis xew-xew bu nekk ak lañ ko war a wax fi mu toll nii li picc yi di sabee mooy sànqare li mbok li li mbo mbott yi di ŋooxee mooy sàm mooy sànqare moom la mbaam yi di ŋaxalee ak fas yi gëlëm yi moom lañuy ñuy bëmboo nag nag yi moom lañuy nàññee mooy sànqare li mu def léegi yow nga toog di firi téere yàlla bi jenn waaye ñëw ne téere bi dafa ami fët hmm. maamanaaka an laa tasjuda ma saajidin arab di waxee an laa tasjuda grammaire nanguwu ko oh, <laughs> Sankara nee na moo gën a dégg grammaire yàlla grammaire kañ la alquran ñëw ba jeex te grammaire dikkut yenent bi ñëw ba faatu te grammaire dikkut sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakrin Omar ibn al-Khattab Ousmane ibn ba jamonoy Aliyu la gis njàng mi tàmbalee jaxasoo mu digal Abul Aswad al-Juwali ne ko unzur haza gis naa ñi jàngi alquran façon boo xam ne nii mi ngi tàmbalee yàqu ñu créé grammaire mais grammaire mooy tënk alquran wala alquran mooy tënk grammaire te boo yemee ci grammaire jàngoo balaa xam man mënoo firi an laa tas juda pour nga mën a xam doole laa ji dugg ci an laa tas juda il faut nga jàng balaa moo lay mën a wax doole ji mooy lan waaye waaye waaye ndeysaan professeur Sankharé nee na moo raw yàlla professeur Sankharé nee na moo raw yàlla professeur Sankharé nee na moo raw yàlla ndax yàlla waxinu an laa tas juda daal loolu du waxinu ku dégg arab te moo ne de Serigne Touba waxuloon waxu yàlla sax mais waxu nitu yàlla rek la waxoon waman taarada bi chaaril awliya benn woykat ko woy mu indi ko ci masalik waman taarada bi chaaril awliya bi naxwi aw arudi qat an buliya ku ñëw di jéem a critiquer wuyu wëliyu yi moo xam naxwi bi ngay critiquer wala wala wala arud bi ngay critiquer grammaire bi wala poème bi arud bi mu ne danañ la teg nattu wëliyu ki tax muy wëliyu muy suñ borom subhaanahu wa taala yow nga ñëw di critiquer téeréem bi ki mooy saay-saay ki mooy bandi kii mooy woyu boo jëlee woyu pilis woyu boo ko egaale rek mu jox la sànqare nga jël bandi pilis bandi égalaat ko mu jox la sànqare nga jël saay-saay pilis saay-saay égalaat ko mu jox la sànqare léeg na nga dégg ku naan nañ ko respecté ndax professeur la man leen professeur bu respecté wul prophète kenn du ko respecté moom fi mu toll nii niveau sixième xale yi dal sixième sax sii Sidi Errama Mamadou Ebintu sax ñoo raw ñoo ko raw fi mu toll nii ba tax na euh, loolu moo tax seen émission aaxiru zaman ñëwee ni mu ñëwee tey nag émission bi ni mu tëddee tax mu tëddee ni mu tëddee ndax booba léegi gan yaa ngi dugg si ci biir studio bi euh, ki nga xam ne mooy oustaz El jóob léegi la dugg si ci studio bi ni mbir yi tëddee la man euh, Mansour Samb tamit tabaarakallaahu mi ngi nii <coughs> moom itamit dugg si ci biir studio bi lépp rek ngir mbir yi fi mu leen toll wax ngir wax wan sànqare ne ko mbir mi bu laajoon tey ñu ne nañ marché Sénégal ba Makka ngir livre bi ñu jël ko taal ko am na ñuy volontaire ngir def ko. Mm-hmm. loolu moo waral soxla yi bari na yitte yi bari na mais gis nga mi ngi nii biñ déggee ne émission bi tey moom la ñuy waxtaanee ñu dagg seen yitte yëpp ñëw ngir teew. nga xam ne tey bu yonent bi woote woon xare ba badar ñu fekkee ko danañ ko teewee ci waaye jullit ñu ñu sàggan ñu mel ne Sankharé ñooy ñi tax ñi nga xam ne ñooy taxaw di ko défendre te wax naa ne. démb laa koy wax xaw ma barki démb safara mi ngi tàkk wutali sànqare dana alawtiku képp ku jug di bëgg a dox digganteem ak safara soos noonu le tàkk wutali ko na laaj na laaj jamono yenent bi ña ko doon diingat ba yenent bi ne allahuma alayhim lu leen dal ñee gaynde fàdd ñee di néew yi ba seen yaram yi toj ñu faatu ñee dëkk jamu ci seen tànk ñu rëy koo dindi mu leen di jam ba ñu faatu ba juróom ya jeex na leen yàlla xalagee na dem gëstu ju ñooñu ci histoire 98 point zero ngeen di déglu seen émission axiru zaman euh, ñu dala rek man su Samb mu nuyoo tabaarakallaahu euh, di wax tamit ne la 30 bii di ñëw soxna Ndeyloo soxna Awa waa siiwal yëpp ñu leen di invité la 30 bii di ñëw di invité képp koo xam ne nii yëg nga ci sa xol ne am na teraanga ju la alxuraan defal bii di ñëw ca géejawaay terrain bi janook sapeur pompier bi ca jumaa ja ñu bëgg cinq heures mboolem kuy jullit nga dajaloo fa ñu wan sànqare ne ko yenent yàlla Muhammad du sa moroom ajjuma jii di ñëw di la trente dix-sept heures ñëpp si ca bayaal boobu noonu la jàkkaarlook sapeur pompier bu géejawaay te jumaa ja julli ñëpp ñu convoqué leen jullit sëñ Mansour dana ci ñëw mboolem réew mi ñu daara yi nekk ci région yëpp waaj nañu ne danañ danañ ko teewee ci ñu ngi def ay turne démb dem nañ ci ay këru diine yu bari ci biir ndakaaru def nañ tournée bu mag ci Sénégal ngir yëgal leen la 30 boobu noonu le ngir ñu wan Sankhare ne ko du ñu nangu ko foyee téere yàlla bi wan ko ne yenent yàlla Muhammad du sa moroom sa baay baayam bàyyi kooku kooku baayam yenent yàlla Muhammad du moromam ba nga koy critiquer du ko ñuy critiquer ñu bëgg nag ci bis boobu noonu le bu fa ñëpp dajaloo ñu sànni fa message boo xam ne nii dana jàqloo képp koo xam ne nii nekk nga noonu alquranul karim bañ xam ne Sénégal mbon gu nekk dugg na fi waaye am na ñoo xam ne dañoo toog ci seen ruq mais heure bu génn jotee nag danañ génn ne leen arrête. te am na leneen lu ñu yëgut te mooy lu ñuy def ci suuf. lu togg ci suuf a gën a garaaw li fës. sëñ Mansour salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu. Baye Makhtar maa ngi lay sargal ak sëñ Fallou mi ngay bokkal jotaay bi lu gën bari di ñaanal sama mag eh, imaam Aboubacar Faye di nuyu sama rak Alxaaji Diop di ziyaare boroom kër gi ak waa kër gi eh, du may guddal ay nuyoog yooyu sax ndax mbir mi lu ku dee ca marché ba. Mm-hmm. yaa tàggi sa bopp yaa tàggi sa bopp. lu def waxu lu ay di njàmbat tey képp ku sant Sankhare nag maa ngi lay jéggalu moo taxit du ma wax sax ci kii mm-hmm. du ma tudd sax tur wa mais Sankhare rek bil kaafi laa bil xaafi foofu taxi mi Sankhare Sankhare moom dong na beroog santam mm-hmm. maa ngi leen fekk ci an laa tas maxtar mm-hmm. Cheikh Makhtar ndax xam na laa yan façon laa moo am laali nax yi laali naf yi maa ba muy wax maanaa laa yi am allati taamalu amala lays maa al mawsuliya laa an naahiya laa an naafiya suñu maam moor xujja kumba job al kokki fa bind benn téere spécial ci naxaw indi ci baabu laa baabu min baabu an baabu ala topp ko ba màgg bind naa ko sama loxo bi kon arab du làkk boo simple boo xam ni dangay ngay jàng ba sonn sax yu bari nga di ci sonnaat Sankara ñu ne fa agrégé ci langue français bëgg ñëw di critiquer ci kile ci loo xam ni al fusaha al bulaga jinne yaag nit ña tëna leen non ki ma mën a gàcc kilifa yi dégg ñu baal ma Cheikh Matar man dama jàpp ne émission tey bi ma toolu fale téléphoné du ma doy. faaw nga ñëw. moo tax damaa yalwaan ci suba bi bi ma la woowee jotuma la ma laaj ma waa mbokk yi ndax daa ma sarax rek ma ñëw <laughs> moo tax lu mat cinq minutes rek laa doon ñaan jàngal leen xasida bi ma def ci moom. ndeysaan ban la. dana tàng nag. xasida bi waaw. bala nga bala nga ñëw sa xasida bi. waaw xam nga maa ngi lay woo boobu léegi jotuma la pour nga yónnee ma ko far nga dikk. forma di xaaral ma jox la ko benn. sa turandoo sëñ Mansour. waaw dafa def xasida 2006 nga feelu ko. waaw 2014. mi ngoog. 2006 bi mu amee ñu caricature yeneen ci. ca Danemark. waaw. dafa toog fii ci Sénégal métit lu mbir mi. mais métit lu gu doyul mu bind ci discours bu rëy jeexalee ko ay xasida. jeexalee ko ab xasida. Mm-hmm. discours bi xoolal fi muy jeexee maa ngi koy wan léegi Oustaz Aboubacry Faye daf nii mm-hmm. wa aqtarihu ilal usrati dawli dawli euh, dawliya jamaa ijaada wifaaqi dawal duwaliyin yakmulu wa yadmanu li kaafatil adyaani bi tamattuci bi xurriyati mumaarasati alcaqaaidi wa shaairi wal ibaadaati wa sanni qaanuunin duwaliyin yaqdi wa yuldima aljamica bilixtiraami wa siyaanati li thawaabiti ay al adyaan wa yanha an il intihaaki l masaasi bil muqaddasaat wal aqaaidi xataa lata xataa yatasanna lil aalami an yaisha fi jawwin yasuuduhu l amnu wa silmu wal istiqraar wal ixtiraam al maa ngi fëgg ci taabal ji di gouvernement bi ci seen constitution yi ñuy tëral ñu dugal ci biir article ak loi boo xam ne dafa aaral nit ñi seen pas-pas pas-pas yi nga xam ne moo tënk nit ñi nga xam ne mooy seen fondement mu aaral leen ko ba nga xam ne genn waay ju tëb rek agressé leen ci seen pas-pas boobu noonu li mm-hmm. ndax mu ne gouvernement bi indi loi yoo xam ne mooy aaral nit ñi seen pas-pas mooy waral nit ñi dund ci jàmm ak sécurité ak dal ak dal ak warmaalante ak joxante cër mais buñ amul lu aar nit aaral nit ñi seen pas-pas ndax pas-pas dafa sori ci nit gis nga sànqare bi mu agressé nit ñi seen pas am na ñoo xam ne buñ janoo woon ak moom tey maara day taali nit buñ koy wax nit pas-pasam a tax pas-pasam moo tax mais buñ sonnee ci ay tabax ay nit ñi nañ am ay kër nañ ami logement nañ wàññi mburu nañ wàññi location yooyu mooy yaramu nit ki loolu bu dee nëpp na pas moom bu wàqoo rek daanaka amatul njëriñ nit ki bu dee yooyu nëpp na yi ñu koy toppatul noonu mais pas-pas lay yóbbaale ba fii jannatul xuld mu ne yooyu dañoo war a ut boo xam ne moo koy sàmmal nit ki léegi ci xasiida mi mu ne fa tabbat yadaakum ayuhal usbatu llati tusiu bi rasmil badri sirril bariyati fa sullat yadaakum bi sama qad asartumu min asadri adxaanun adxaanan ladaykum ka jamrati fa aamaalukum xaabat wa daat juhuudukum wa ishtum xayaatal muctadiina bi xasrati wa antum musii'uuna bihi wa bi diinihi falaa niltumu fawdan ala suui niyati tajaratum antum alayhi wa bi rasmihi ayursamu nuurun laa yutaaqu bi nadrati allahu akbar mu ne fa tabbat yadaakum yàlla na seen ñaari loxo yi dagg yéen professeur Sankharé ak professeur yi mel ne yéen seen loxo yi ngeen jël di xalaat di bind seen loxo yooyu yàlla na yàqu ayuhal usbatu lati tusiu bi rasmil badri yéen mbooloo mi nga xam ne yéen a dajaloo guddeeg bëccëg di abalante ay livre ak i xalaat ngir bind livre boo xam ne moom ngeen di tuddee la Coran et la culture grecque mu ne seen loxo yi ngeen bindee livre bi yàlla na yàqu yéen ñiy jéem a caricature yonent bi di ko foyee seen loxo yi yàlla na yàqu fa sullat yadaakum mu ne seen loxo yi sax sem na yàlla na sem seeni loxo la daloon Mansour ibn Akrima Mansour mi Kirma keroog bi ñuy embargo yonent bi moom lañ sasoon ngir mu bind lettre bi ñu koy embargo yi la maam Cheikhul Xaaji Maalik wax bi xatti Mansuura sallar kafuhu salalan saxiifatan katabu Mansour ibn Akirma keroog bi mu bindee pacte bi ngir ñu doon embargo yonent yàlla Muhammad bi mu ko bindee ba noppi loxo bi dafa paralysé sëñ Mansour nag ne la daloon la daloon Mansour moomu képp ku caricature yonent bi wala nga foyee alquran yàlla na sa loxo yi paralysé allahu akbar amin fa sullat yadaakum mu ne sa bon na maa xat asartumu li nga xam ne moom ngeen jeexital mina sadri ci seen dënn yi adxaanan ci mbañeel ak nooneel jëmee ko ci yenant bi muy tàkk mel ne xalu safara xoolal mu wax wax ju doy waar ni waaw wa antum musiiuna bihi wa bi diinihi nii akbar wa antum yéen bindkat yi wa antum yéen ñi caricature diine ji wa antum yéen professeurs yi wa antum yéen intellectuels yi wa antum yéen ñi gëmul yenent bi tusi una bii yéen ay gën a jéem a ñaawal yenent bi wa bi diinihi ak diineem ji falaa niltumu fawdan ala su iniyati yàlla bu ngeen texe ngir seen yéene ju bon ji ngeen am léegi nag bi nga xamee ne def na xasida bii nga xam ne moom la def euh, jamono ñëw te ba muy bind xasida bi te xasida bi dëppwaat ak actualité bi mi ngi ko jëmee woon ku dëkk Danemark tey nag ku dëkk Sénégal Salman Rushdie lañ doon wax mu binaayaatu seytaan Cheikhul Hadj Abdoul Aziz woote dajeem bu rëy ba ba waxoon ne am na kilifa gu wax ne bu buñ ko indiloon bopp Salman Rushdie mu teg ci nangami million dollar mu ne man de xaw ma kooku mooy kan mais xalaatam boobu noonu la laa ànd. ñëpp fàttaliku Thierno Mountaga waxam jam waxoon ni am na journal yu nekk ci dëkk bi yu nu fay. yoo xam ne nii pare nañu jël salma téere salmaanu rusdi ba di ko bind article par article ba ba téere ba jeex waaye mayeetuñ benn journal ngay génnee lenn lu jëm ci téere salmaanu rusdi ba ndax ñoom xam nañu bekkoon bi mën a jur ci réew réew mu ñuy saagaa taalibe yenent bi rek mën naa tàkk rawatina réew mu ñuy saagaa alxuraan léegi nag salmaanu rusdi lam lam defoon tey am nañ Salman Sénégal moo xam ne Masiihu Dajjal la muy professeur professeur Sankhare bu def lu mel ne la mu def lan nga wax ci moom Mansour Samb tara rawa rabiyun aqlu Sankhare battun wa qat'un duburu zaaka Sankhare ayashtumu muhammadan tabban lahu wa man saa bi naxwi kisbi Sankhare ayut'inu qur'aanana ma ahlaka wa maftara alkazaabu mislu Sankhare ayahju muhammadan wa laysa hu bi kuf in fala najaata sankare hay haata an naskura xinziran bi jan bi ahmadin lakin bi zikri sankare bayaanu maftara min al abatili kala yadilla waxidun bi sankare wa ilmuhu li kisbihi laa yuctabar wa muslimun yubgidu misla misla sankare man lam yakun fi qalbihi qur'aanuhu fa jaahilun walaw turaaka sankare nafsi wa ruuxi li muhammadin fida xibri wa aqlaami bi zahri sankare wa ayna ahbaabu muhammadin taa law tadfacu fussaaqa misla sankare wa yowmuna bi amsina ma ashbaha rujuucu affaakin atawka sankare li mustapha walil kitaabi maaliku yaxmihima amman baxaaka sankare yaa rabbana fala tuaxisna bi ma yakzibuhu wa yaftarihi sankare sénégalu laa tuaxiranna raddahu fa min huna ntashara kisbu sankare aarun bi an yasbaqakum an dafci ma yubdicuhu yunshiruhu saa zankare bi raddihi saqafatan wa gayraha ida daat kay laa yacuuda sankare wa salliyan ala rasuli cibbina wa suba sawta ma yaliqu sankare est-ce que xasida xasida Sëriñ Mansour mi ngi noonu macha allah léegi nag ñu tekki ko mooy taxaa beew na ku beew sànkare rawaa sànku na ku sànku sànkare rabiyun kannasu na ku kannasu sànkare aqlu sànkare xel xel mi moo nëxës dof na naax saay na am na ñu koy wax de bari na ne wérul ñu ne lan wérul wérut ah xam naa day ma ne dof bu li wax moom wérut dof bi ne professeur di di fayeeku weer di fayeeku weer boo ne wérul <laughs> ma ni battun këtt na xatu un dagg na <laughs> duburu zaak kookule <laughs> suufam suufam si toogukaay ba hmm. bën bën ba hmm. këtt na jeex na moom mooy la yàlla wax xutia daabir al qawmi alladina zalamu foofu lañ ko iqtibaas moom nga firi walhamdulilahi rabbil alamin allahu akbar ayastumu muhammadan ndax day ñëw di xas ku toll ni muhammad tabban lahu <laughs> kii moo toskare du moom rek de mm-hmm. waman saa bi nax wi kis bi sànkare ak ku def lu mel ne lim def ku def ni lam def ba àdduna yi tukki wax naa la loolu <laughs> moo xam fekk na wala fekkuma fi mm-hmm. ayut aynu quraan na dana ñëw di di di di corriger suñu quraan bi di ko jam maa ahlaka kii moo alaku kenn gënu ko alaku jam alxuraan day ñëw di jam alxuraan corriger yi alxuraan lu ñuy corriger daa miin pré daa miin corriger nag ndax professeur. waaw comme que professeur nee nañu <laughs> comme que nee na ñooy. élèves yi miin a corriger moo tax xam naa mu ne xaaral ma boole ci. jeex na alxuraan. nee na maa agressé. <laughs> wa maftara mosul duur. <laughs> duur mooy loo xam ne dara amu ci. alkazaabu fenaakoon bi ni faal. Hmm. mooy ku bëri lu muy fen ba bu waxatee sax duñ ko faale. du nekk mën naa dem sax woo dëgg waaye duñ ko faale. kazaab alkazaab. musaylimatul kazaab fenkat yi musa mi ngoog kazaab ya. Hmm. kenn dàqu ca fen Sankharé. maanaam siècle yi weesu yëpp amul fenkat bu gën a mën a. fen Sankharé moom fenam gi fenu international. déggal mu ni faatitul kitaab <laughs> dafa wàcc quinze siècle avant Mohammed faatitul kitaab boobu Sankharé maanaam quinze siècle Sankharé fu mu nekk. <laughs> ndax mille mille mille neuf cent. Hmm. xaw ma mille huit hmm. ndax fekk na ko ci àdduna. déedéet kañ la ñëw ci àdduna. Hmm. waaye wii fen yow la nga doon wax ci fenu gaaraas. yaa ngi koy fàttaliku waaw. li ma ko gën a garaw international lay doon boobu maa ngi la doon déglu bii <laughs> moo gën a garaaw boobu ngay wax nag mhm. yow mi doon wax boobu mhm. bàyyil boobu te jàpp bi waaw bii international la jeex na mhm. euh, ayaxju muhammadan ndax dafay ñëw ne day ŋaañi muhammad walay sa huwa bi kuf in du waa yow du dunu ko tudd sax di tudd muhammad yeneen bi du nawleem falaa najaata sànkare sànkare mën a tula mucc hay haata sori na anas ko rek siiran ñuy tudd benn mbaam xuux mhm. bi jan bi mu ahmad mhm. duñ ko tudd di tudd ahmad mhm. waaye nag xam nga boo gisee ñu koy tudd fii bi zikri sànkari bayaanu maftara min al batili ngir leeral la mu duur ci ay caaxaan lu tax limaasa kay laa yadillu waahidun bi sànkare ndax kenn bañ a sànku ci moom xam na ni Cheikh Babacar du sànku ci moom Cheikh Makhtar du sànku ci moom waaye innocent yi xamut ak génération bi ñëw ëllëg tey mbind day des sama maam dafa maa bindaloon ni ma alkatbu Mansour mu ne ma mu ne ma alkatbu baqaa tawilan duuna katibihi wa saaxibul katibi taxtal ardi madfuun bind daf fiy des ñanaan jërul tontu ah li mu wax du dëgg dañoo saagawul seen bàyyi dégg naa ko déggati ko fan yi waaw dañoo saagawul seen bàyyi ba démb am na ku ma ko wax waaw dañoo ni ma sa xasida bi dafa tàng dëgg-dëgg nag ma ne Oh, waaw ba démb rek mm-hmm. am na ko ma ne ma sa xasida bi dafa tàng mm-hmm. ma ne ko su ma amoon lu gën a tàng ma def ko ay ustus lañ waaw mm-hmm. wa ilmuhu laa yu tabaru xam-xamam nekk tuñu considéré limaasa li bi wa muslimun bépp jullit ma def ko nakira ñépp dugg ab jullit bu dëggu yóbbu xidu day bañ mis la ku mel ni moom ku mel ni sànkare man lam yëkkoon fii qalbi quraanoo alquran ba nekk ci ab julit ku mu nekkul ci xolam. ki ni ab julit nga. te alquran nekkul sa dënn fa jaahilun jaahil la. walaw turaak donte gis nañ ko. ka sànqare mu am diplôme comme sànqare. ñu ni jàng na ba agressé. ci langue français. gannaaw Senghor moom la. ba pare mu di ñu agressé. nafsi sama bakkan man man suur sàmb. Mm. waruuhi sama groupe. fi daawun def naa ko njot li Muhammad Muhammad moo ma gën mm-hmm. gën sama ndey mm-hmm. gën sama baay mm-hmm. gën lépp lu mënti doon moo ma gënalit ku mënti doon sama bakkan lii tey buñ ma ci rayee alhamdulillah ma shahid ndax jox nga sa ruu yeneen ci lii ma am lii ma yor nii nag muy sama xibra sama daaj yi aqlaam yi samay xalima bisaari ah, sànkare nee naa ko duut ca gannaaw ak sànkare jàpp ci mbubbam ni ko arrêt ratax ratax ko ratax naa ko ko arrête Sankharé arrête mm-hmm. ma ne nag yéen mbokk yi wa ay na ahbaabu Muhammad mm-hmm. ana ñuy wax ne bëgg nañu Muhammad di ko tàntal fii ci Sénégal di ko rey li gàtt mm-hmm. ana ngeen soppe yi soppe yi taalaw tadfaaw ñëw leen nag ngeen défendre fu saaq kàccoor yii mis la Sankharé na nañu ñëw jàpp leen teg leen fële wa yow mën naa bi am sina ma ashbaha wa yow mën naa ma ashbahahu bi am sina ca caricature Darmaque ba ak Salman Rushdie ba ña leen jiitu ba taxoon ibnu taymiya bindoon al asayful masluulu ala chaatimi rasul sallallahu alayhi wa sallam mu mm-hmm. bind ko ni jaasi juma bocc ci képp ko xas yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. kon démb ak tey niroona waaye nag bàyyi leen xel ni mm-hmm. tey jii rujox af faak duurkat yowoon ñoo dellu si ataw dellu si nañu bu ñu dellu see nag fekk ñu fi Seydul Hadji Malick ma nga mm-hmm. bar sax mm-hmm. fekk ñu fi amul fuuti moo doon wax li kulimati naay xaar yan xuluhu walaysa ala diinil muhaymin naay mm-hmm. waaye fekke nañ fi Makhtar Sarr fekke nañ fi Aboubacar Faye fekke nañ fi Alaaji Diop fekke nañ fi Mansour Samb donte Mansour xam-xamam bariwut waaye la mu am dana ko joxe li Moustapha sallallahu walil kitaabi maalikun téere bi lii ñuy wax ñun mënuñu leen aar de am nañu borom inna lil bayti rabban sawfa yaxfaz sawfa yaxfazuhu azima qawmika laa abgi siwa naami mhm. yax mi maa dina leen aar mhm. amun baxaa képp ku beew mhm. ka sànkare léegi nag musiba mii xew dégg gañ ko dégg dañuy ñaan yàlla bu wàccee mbugalam yàlla nañ ci mucc yàlla nañ ci mucc waaw yaa rabbana falaa tuaaxizna bi maa yagzibuhu wa yaftarihi sànkare macha allah yàlla bu ñu yàlla jàpp mbugal mbugalu yàlla ma xam nga tey bu Sénégal noppoon kenn waxut euh, Maxtaar. dana métti nañu gërëm ñiy wax ci Sankharé. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu leen gërëm. Mm-hmm. gis nga gëm naa ne bu kenn waxutoon mbugal mi wàcc na. danañ xëy bëgg a liggéeyi. mu tënu. Sénégalu. laatu aqiran yaani yaa ahla Sénégal. bu leen yeex. raddawoo ci tontu ko rattax ko. duut ko ndax lan fa min hunan tashar. kis bu Sankharé. ki fenam yi fii la ko tase. fii la fenee fen wi jé jéem na ko Algérie. Mhm. bëgg ko faa tase. waaw ñu bëgg koo rey. mu bañ euh, ñoo ñu bañ. dañ ko rawalali sax. ñu rawale ko. Mhm. mu ñëw Sénégal léegi Sénégal quatre vingt quinze pour cent musulman ëpp na ko. quatre vingt dix suuf si la Omar Fouti yu tëdd. Mhm. ñi fi tëdd ci mokkal alxuraan kenn xamul nu mu toll. suñu dëkk bi ñuy yeesal daara ji. man xaw ma ko woon benn mag ni ñu armée yi ngeen gis juróom ñaar fukki kàng ñu ngi tëdd. te dëkk bu ndaw la xoolal senegal réew mu toll nii bu doon sax dañu ne ab jàmbur mais Sankara ñu ne Sénégal la turu jullit la yor turu jullit la yor famille jullit la la bokk mi ngi jàngale suñu daara ju gën a mag ci senegal des universités université du daara kay maa ngi jéggalu mhm. foofu lay jàngale jàngal ñuy jàngale di jàngal ñuy jàngale docteur Khadim Mbacke wax démb li doy waar. waaw mooy waxuma téere bi mais ñim jàngal pas-pas bi ñu tasaaroo biir Sénégal. waaw kii maanaam damay tontu ñuy wax ni. Hmm. dafa juum amrun dubbira lay lan lu ñu programmé la. Hmm. ak ñam ko àndal. Hmm. la ca gën ñaaw mu déedéet ko kan. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. day kokkali. moo tax ma ne aarun. gàcce la yéen waa Sénégal. bi an yasbaqakum an def imaa yubdihu ci ci ci ci ci défendre la nga xam ni moo ko fi njëkke mm-hmm. albidaa moo ko fi njëkke mm-hmm. yoon suróoma di ko tasaare za kàccoor bi gàcce la ngeen toog di xaar ba waa ba waa Mali bitim réew wala waa Mauritanie jot ci téere bi di ko tontu di ko tontu yéen ngeen toog leen kon Sénégal kon kon Sénégal ci pot tey ngeen mm-hmm. birat bii ñu tontu ko saqaafatan ci xam-xam te loolu lépp ñoo ngi koy def Aboubacar Faye ci loolu laa ko fekk muy dut baaraam la mu wax point pour point ci ummi yu baag ah ca ci ca laayaag yëpp maa ngi leen di déglu bi may ñëw ci oto bi ma dugg waxay reexa ak yeneen isa daat bu ko laajee su dëgëree bopp ci tuub googu ñuy wax bu fekk am na ci suba rek ku ma ni woo na ko téléphone wax ni nañ ko wax fan lay ñëw mu tuub xam na ko mu day jàngal ñuy jàngale xam na ko na dindi ndey ja fa mu ko dugal téere ba téere ba. Mhm. fam ko na ko fam ko dugal na ko supprimer. ba pare it bindaat. taxaw ci kanamu ñëpp kay. Mhm. troisième ma ne ko mu taxaw ci kanam ñëpp mu nekk lu ñu télévisé. Mhm. ñëpp gis ko trois quatrième. wa aslihu ila man taaba wa amana. wa amila amalan saalihan ñeenti conditions yi bu dajee dana am lu muy wàññi suñu taas. ci xol yi waaw macha allah. isa daat Mm-hmm. kay laa yahuda sànkare mm-hmm. ngir mu bañ koo defati mm-hmm. ak ku mel ni moom wasallina ala rasul li ma doon bañ ku ñaanal yonent bi ma ne maa ngi tëj sama wax di ñaanal yonent bi du ma wax te ba jeexal te ñaanalu ma ko di ñaan nag wa subba yàlla na nga lambaar sawta karawaas ga maa yaliqu ca la mu yelloo sànkare ak ku mel ni moom macha allah euh, sëñ Mansour mbokk yi dégg ngeen xasida bu rëy boobu noonu le di taxaaxawaa xabiyun aqlu Sankare battun waqatun duburu daaka Sankare euh, Oussa Aboubacrin Faye noo gisee xasida Serigne euh. Mansour bi ñu ñu ubbil téléphone yi mbokk yi ci 88 628 32 32 dala laal tamit Oustaz El Hadj Diop moom tamit euh, lu mu déggee ci waxtaan wi waaw kon ñu jël Oustaz El Hadj Diop jege sil nii dugg sil ubbil nañ leen téléphone yi mbokk yi 88 628 32 32 88 628 32 euh, 32 tey ñu waxtaanee ci aaxiru zaman professeur bu aaxiru zaman di sagaru professeur bu bind. di attaqué yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne cër bu mu amoon. Euh, ndeysaan li ma métti rek mooy nit li yàlla waxoon laqad xalaqna al insaan fi ahsani taqwim suma raddanaaw asfala saafiliin ndeysaan nit dana dem bañ ko woowee professeur ndeysaan mu dellu ginnaaw ba ba élève sixième mi raw ko salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. ku baax ki kan la. sëñ Moxtaar ñu ngi lay ziar di jéggalu dina eh, kii suñu tur donte ne waruñ ko nëbb sax waaye dañoo baaxul wax sa rajo moo tax ñu ngi jéggalu ngeen jéggal ñu tur bi. jërëjëf jërëjëf. waaw di wax suñu xalaat nag si xaj bu nekk université noonu feebar tey màtte. Mhm. xaj bu feebar tey màtte rey rek. yow yàlla yow mi nga xam ne yaa ma bind. bind sallallahu alayhi salaam mii muy wax bind ko moom mii xam nga ne aw ma kàttanal yegg ci moom yow mi am kàttanal yegg ci na nga ko alkande goo xam ne ndax xala ko dundaa fukki at suñu kanam te du bum diyee waan nag alkande gu mat sëkk nag dundaa mat ci anam yow man nga ko tëliwoo ko yàlla na ko def léegi nag euh, taalibe du digal ay kilifaam hmm. waaye lii sama xalaat nag moom sañ naa ko hmm, kilifa diine yi lii sama xalaat mooy ñoom ñëpp ñu joxante loxo hmm. ànd juboo waxtaan jël kenn seen ñoom si ki ñu wóolu samp ko candidat kenn ku ne joxe sa taalibe ne wootal leen ko ñu wooteel ko ñu gañe liñ bëgg ñu mën koo am li ñu naqari mu mën a tëj. xalaat loolu rek moo si sama xalaat asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf jërëjëf xalaat la de. ndax bu ñu amoon candidat bu ñu mën a waxal ba léegi dégg nañ ko. Hmm. waaye suñ njiit yi nii nii nii ba léegi kenn na ci waxut. kenn na ci waxut te ci laal sa euh, palais. ñëpp dégg nga ngay yuux. bisimilah allo salaamaaleykum. Oustaz Aboubacrin jël ko. bisimilah. Euh, ñu ngi leen di ziare. ñu ngi lay fay yàlla yal na yàlla guddal fan yi yal yàlla wéral yéen cër yi ci barkeenti yi. sallallahu alayhi wa sallam waaw. ñu lay ziare bu baax a baax di la ñaanal yàlla. jërëjëf. Euh, moom liñ ci wax xam naa du bëri ndax liñ ci bëggoon wax yëpp. Mm-hmm. macha allah wax ngeen ko. Mm-hmm. waaye dama jàpp ne comme li nga wax léegi rek. dafa am golo yoo xamante ne ñoo ñu yilif mm-hmm. yoo xamante ne ñoom ñoo waroon taxaw carrément défendre l'islam mm-hmm. wala ñu defendre seen en tant nit laa wax mm-hmm. ndax boo waxee dañuy naan ay jullit ak i chrétien ñoo fi nekk na jàpp ne nag ñu ci bëri nag défendre ñu ñi nga xamante ne ñoo nekk ay jullit mais chrétiens yi la ñuy défendre ndax comme li nga wax léegi fii lañ taxawoon ñuy dem ci seen i xabru yi di fa sàcc état bi état bi ci boppam moo jóg carrément wax ci lim ci wax ñi ñi ko doon def nee nañ sax jàpp nañ leen. ki nga xamante ne nag moo taxaw saaga jullit ñu ne ci àddina bi yëpp ndax man sax waxuma Sénégal mais jullit ñu ne ci àddina bi yëpp la saaga. am na ay naafeq yoo xamante ne nag ñu ci bëri ñii ci rajo yi lañ nekk comme ñi ngay wax ci ustaas yi mi am na naafeq yoo xamante ne ci yéenekaay ñooy liir yéenekaay yi. Mm-hmm. yàlla xam na ne dafa mel ni da leen ndax soo déggee ñoom ni ñuy waxee te boo waxee surtout nangam ñooy sëtu yonent bi ñooy nangam sangam te ñoom ni ñu koy waxee dafa mel ni sax ñoom amuñu yëg-yëg ci li ñu leen wax li nga xamante ne moom la waa ji wax. Mhm. dañuy kokkali. Mhm. ñaareel ba mooy politiciens yi nekk Sénégal. Mhm. fii université lu fi xew ñëpp xam nañ ko yàgg nga koy wax nag saa ñi laalee diine. Ah mu am la xew ci dëkk bi. waaw ah nag jàpp nañ ko ay waxu ku mer ak ku nangam sangam wala waxu xulookat waaye ba léegi daal dañagut nangu naa buñ ci wax rek baax na. mais moo am sax li am mooy lii li nga wax moom mooy dëgg. Mhm. ndax gisagu gisaguñu li koy dindi. Mhm. amul benn politicien boo xamante ne taxaw na carrément wax ci naafeq bi nga xamante ne seytaane bi nga xamante ne nit ku bon ki nga xamante ne moom moo wax lii ci kaw diine kenn waxut. Mhm. kenn ku ne nag yaa ngi wone na man bëgg naa Sénégal ñi naan université li fa xew warul nekk élèves yi waruñoo dugg kaso du place am du kaso. place yu jullit ñi mooy ñi nga xas seen bi yónanti di xas seen téere di xas seen boroom te kenn waxu ma jàpp ne nag ba ba may gis li ma leer mhm. dama gëm ne dama gis ne damay yaakaar ne état senegal ci boppam moo jàppale waa ji mhm. ndax fi ñu ko doon weddee mooy moom ci boppam ñu taxaw carrément ne ko yow li nga def tegoo ko ci yoon ñu jàpp ko dugal ko ci kaso bi wala ñu jàpp ko won ko li nga xam ne def ñu teg ko ci yoon daal mhm. même bu dee dañ koy convoqué sax. mais ki fi nekkoon doon wax ak mariage temporel bi mu nar a indi problème dañ ko woowoon ci yoon. Mhm. biñ ko woowee kenn déggatul mu wax. Mhm. mais naafeq yi nga xamante ne ñoo ne ci réew mi muy man man doon man ndax mhm. man dama koy wax ñu ngi coow nit ku bon mais bëri na ñu bon ñi ci ñoo xamante ne ñu ngi àndaloon nit di ko coow. man na doon man mais naafeq yi nga xamante ne ñoo ci réew mi ñoo xamante ne ñoo war a jóg carrément wax ak état. jóguñu wax ak état lu du ñu téye seen gémmiñ kenn waxut kenn ŋaangut ñooñu laa jàpp ne ñoo gën a bon sax. Mhm. saaga bu daganoon rek ma wax ko lu bon waaye nag. wasalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu 88 628 80 32 32 waaw 32 32. El Hadj salaamaaleykum El jëlal ki dikk. Moussa Sarr. waaw sëriñ bi bisimilah. Ah, na ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. waaw yéen si jàmm. ñu ngi sant yàlla baax a baax. ñu ngi rafetlu seen waxtaan baax a baax. alhamdulilah. waaye waa jooju noonu génn daanaka dégg mu bu baax nag. waaw ñu ngi lay dégg waaw. waaw ah, Mouhamed laa tudd. Mouhamed nan. Mouhamed rek. Mouhamed waaw. waaw ah, damay nëbb sant. waaw bisimilah. te waa génn li mu wax man d'accord naa ci. Mhm. maanaam Sénégal yëpp dañoo war a ut benn candidat. Mhm. boo xamante ni musulman la. Mhm. nga xamante ni ku xam diini ji lay doon. waaw ñu wattal nga xamante ni mu mën a toppatoo loi l'islam ndax kii am na benn kilifa gu ko waxoon def ne maanaam loi Sénégal ci boppam jeneen diine la partage bi moo partage wu diine l'islam kon nag loolu war na ci mën a góorgóorlu bu baax a baax ak loolu rek laa bëggoon wax. jërëjëf 88 628 32 32 bu ñu demee ba 48 ak tuuti ñu jox El moom it mu indi gis-gisam ndax mbokk yi tamit ci lañu salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ku baax ki kan la. Salih Gaye. eh sëñ Salih. Salih Gaye. waa kay gay Gaye Gaye na ngeen def. ak ñooy ziar bu baax a baax. naka waa marché Zeng. ñëpp a ngi si jàmm ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilah. ñu leen ziar di rafetlu émission bi. Euh, marché yi dégg naa livre bi la ñuy waxtaanee. ah. ma ne marché yi livre bi la waxtaanee. allo allo allo ñu ngi lay dégg. man de sama sama appareil bi ma yor moo xaw moo xaw ñàkk leer moo tax. waaw waxal kon ñu ngi lay dégg waxal. yaa wax ñu dégg ma incha allah. Mm-hmm. waaw may nuyu Oustaz Mansour Samb moomu. Mm-hmm. ak Aboubacar Faye sa invité yi. Mm-hmm. di rafetlu macha allah émission bi. mu mel ni tamit wax ji tamit ba léegi moom warta dakk moom. du ma war a nekk ci jihaat boo xamante ne du ma war a dem ba à la fin. ndaxte mbir mi du ko bàyyee mu sedd. keneen di nga ñëw waxaat. xam na démb maa ngi waxtaanal benn waay mu ni ma. kii nii li mu def nii war ñoo déranger ndax moom mënta yàq suñu pas-pas ma ne ko déet waroo xoolee foofu ma ne ko du pas-pas bi muy yàq yow mënta yàq sa pas-pas wante lii nii du nga ko bàyyi mu seet keneen day ñëw waxaat ko wante lii faaw ñu topp ko incha allah ba keroog résultat bi di génn même comme sànq lool nga wax noonu sax nga ne du fekkoon sax du muy def benn bayaal boo xam ne wala benn état hmm. yow fa téere yi pour lakk ko hmm. loolu lu jaadu lay doon tamit hmm. comme ku njaaloo nu koy weeree Mm-hmm. téere yi tamit noonu na nga ko war a weeree ndax téere yi nii moo gën a garaaw njaalo mm-hmm. ndaxte tey saaga sa saaga alxuraan la saaga yàlla la mm-hmm. dooy din yonte bi sallallahu alayhi wa sallam la mu mel ni moom faw ñu topp ko bu baax a baax incha allah ñuy rafet émission bi bu baax a baax ñu ngi rafetlu émission bi ndaxte comme li sëñ Mansour tontoo woon kii defoon mbir mee rek caricature yaa bi moom tamit loolu moo koy dar rek waaw fa tabat yad yaddu Sankare. Mhm. waaw moom moom loolu moo koy dal moom. Mhm. yàlla na ko yàlla def mu fexe ba jubbantiku ba tuub tuub boo xamante ne day nekk tuubu delluwaat ci diini. Mhm. ndax lii nii murtad la. ndax murtad wees woon weddi arxuwaan doo weddi arxuwaan nag weddi nga yàlla da ngay weddi yonte bi. ndax dangaa war a boole gëmëñoo yëpp. am na yenn saa yi tamit ma dégg ni ñi naan comme que jégal na du nga war a baal. muy jégalu bi bokkoon jégalu boo xam jégalu bàkkaar la wala jégalu àq. Mhm. jégalu génn si diine la doo génn si diine nag da nga war a dellu si waat yesluwaat. Mhm. dafa war a dellu si yeslu. Mhm. wante nekkul nag dugg naan dafa jégalu rek ñu baal ko. ndax maa ngi dégg tamit ñu ne am na benn doom bu waroon def xaw ma lan bag. wante ñoo ngi koy fitnaal isaan yi nii ba moom mën kaa def. léegi ma ni foofu nag la Sankharé bëgg a jaaree bëgg a jégalu. ndaxte du jégalu nu bàyyi doomam dem moom am liberté. fekk jégalu boobu noonu si lam yi lay yem. day mel ne xaalis bi en raabu aman naa xolam tuminu mhm. tuub bi yegg si xolam ba mu jébaliwaat muy dóor a tuub mhm. tuub boo xamante ne day delluwaat si islam ñu door kaa jégal mhm. na fi ñëpp ànd jëm see jàpp incha allah ajuma moom man maa ngi fa incha allah incha ñu ñëpp a ngi fa incha allah na fa ñëpp teew ajuma incha allah waaw man képp ku diina jaral incha allah na nga fa teew ñu ñëpp fexe ko naqarlu ndax lii nii mbiru mbiru diine mbiru diine la diine lan laal. nekkul tarixa lan laal. nekkul leen lan laal. ndaxte da dama damay damay wax ni ma ni pourquoi tarixa yi du mu fi laale benn tarixa nit ñëpp juganoo waa mbokk tarixa boobu juganoo dem dem dal si ko nit ki. ma ni du ma ñu noo du moo bennoo ma ni bennoo boobu pourquoi ñun julli def ñu ko ñu xam ne tarixa yi laa ilaha illallah moo leen fi teg. Mhm. waaw ñoo xam ne nag ñun ñëpp laa ilaha illallah moo fi teg. bis boobu ku nekk. na fa daje incha allah. incha allah ñu fexe ko mars. fësal ko ñu xam ni diine ji amal ñu koy défendre. lu boobaa kenn du ñu ñeme. waaw ndax tey fa'tasimu bi hablillahi jami'an ndax jami'an moom mooy tarixa yëpp. waaw amun amun farq. na yàlla sàmm la. amiin incha allah sàmm imaam moom nga xamante ni keroog day boobu noonu mu woote woon am na solo. wallaahi moo tax sax ma gën a yokkuwaat sama courage. Mm-hmm. di gërëm ñi ñi nga xamante ni ñoo ngi koy ñaxtu ñëpp. Mm-hmm. comme sànq ni nga waxee tamit nekk naa fexe nekk nekk naa fexe. Mm-hmm. weesu woon. Mm-hmm. di waaraate si alxuraan ba noppi ñu dal si alxuraan. nga nga tëb loolu di di di di di continuer sa tafsir. Ah waaw ndaxte yow li ngay tafsir noonu moom lañ dal si kawam. wax dëgg kon war ngaa fexe ba loolu taxawaat ndax nga mën a taxawaat yow pour tafsir. li ngay firi ñu ne wérul wéralal li ngay li ñaan liñ ne wérul ba noppi soog di firi. lu wér la. <laughs> Uh-huh. mooy li li na ñëpp taxaw. Mhm. ñu fexe ba lii bañ fi amati. incha allah jërëjëf dafa gën a fës rek wante tamit keroog. jërëjëf xam naa gis nga vidéo ci Facebook bi. kooku mhm. Tunkara invité woon. waaw kooku tamit sosal na Alxuraan. Mhm. am na ma tamit damaa damay faral di wax ma ni du ma waroon am commission boo xamante ni. daa war a am ñoo xamante ni ñu ngi saytu wàll. diine ji. dana am dana am incha allah. incha allah nañ teew nañ teew àjjuma rek. te àjjuma na ñëpp teew ba di ba dëkk bi sax nekk dëkk boo xamante ni. Mhm. lay dafiy jógee dëkk islam lay doon. incha allah incha allah lépp bennoo rek moo koy waral yàlla na ko yàlla def. amiin amiin amiin amiin. yàlla na yàlla boole sunu xol yi tàppe ko. jërëjëf. jërëjëf jaay nabi ñu koy jaajëfal euh, bu baax a baax a baax a baax euh, macha allah di leen wax rek àjjuma àjjuma 5 heures na ñëpp dajaloo ci bayaal bi nga xam ne moo janoog ñu jullee si fa waaw ñëpp nga xam ne trois heures bu jotee ku ne jógee fa nga jógee fekk fa ñëpp ñu wan sànqare ne ko yenent bi du sa moroom du moroomu bàyyam mu muy foye salaamaaleykum allo salaamaaleykum aleykum salaam la Matar waaw Jibril Ngom Liberté 6 Jibril waa Ngom jërëjëf Ngom naka yitte yi. alhamdulilah. wax dëgg yàlla ñu ngi ànd ak yéen naqar a jërëjëf. wax dëgg yàlla yëf yi ñaaw na lool lool lool lool lool. yi mhm. nag jullit yi ci seen bopp ñu ñu nekk jullit diir. Mhm. ñoo ci war a jóg lii jeex mhm. parce que bu dee da jéggulu naar yi jéggulu simple simple rek beneen yoon ëllëg keneen dina ko def. waaw dañ ko war a sanctionné. bu aajee cëppi cëppal sax ñu cëppi cëppal. parce que li mu wax lool. day na waar ku mel ni mu koy dingat sallallahu alayhi wa dingat alxuraan mhm. di dingat yàlla mhm. kooku lim def ñaaw na julul bi yëpp ku melul ni moom rek naqarlu nga ko kon nag nañ ci taxaw li jóg fi jeex fi tàkk ah, waaw kii mi ngi nekk ba Amérique Demba Sall euh, macha allah xam naa ci téléphone bi la jaar moo tax duñ ko mën a dugal waaye pour wan la nekk téléphone yi sama message yaa ngi nii dafa fees daanaka ci téléphone bi ak Facebook bi fu nekk ngir wane rek gouvernement bi lim noppi lim noppi mi ngi noppi ci xalu safara bu dugg ci biir biir li mu dajale sax xam xalu safara bu ci dugg la noppi waale sénégalais yi fu leen naqar wi fu naqar bi euh, weesu rek weesu na ko mais nag yëgaluñ ko seen yaram ñu jël ki ci ligne bi dellu si salaamaaleykum allo nday màggat jong Amérique moom itamit ñu ngi koy euh, nuyu moom it mi ngi bind euh, ñoom ñëpp di bàyyi xel jataay bi 88 628 32 32 bismillah hélas jël ko bismillah asalaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah eh, déggu ma leen bu baax de ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg waaw sëñ bi de maa ngi tudd Moussa Dramé Moussa waaw di rafetlu seen émission bi lool. Mhm. toujours maa ngi koy topp. Mhm. Euh, li may wax si mbir moom nag mooy suñu pro euh, nit kooku. Mhm. mooy euh, li may faral di wax boo juree sa doom mu tuddee ko Xaadimu Mustafa wala nga tuddee ko Seydina Mohamed. jox ko ab ko yaral ma ko li ëpp Sénégalais yi boo waxee ñoom dañ naan la. lu am solo la doon wax noonu. macha allah jazakallah mooy li tax kii mel nii ba def lii mooy ñi jël seen doom di ko yóbbu yéefar yi ñu leen di jàngal. lii bokk na ci li mu war a jàngal julli ñi ñu rocc seen doom yëpp ñu dugal ci école yéefar yi ñuy def ci ñoom pas-pasu yéefar bii ndax kii ab yéefar rek ko ko mën a jàngal ba tax muy wax lu mel nii. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Makhtar. waaw kooku. maa leen di man la Salimata aéroport. Salimata aéroport na ngeen def. waaw maa leen di ziar di rafetlu jotaay jërëjëf. di wax ne ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ndax taxawaay bi ngeen taxaw ti ñeneen lañ ko séentoo woon. Mm-hmm. waaye gàcce nga laa ma yéen yal na leen yàlla jàppale. amiin yaa rabbal aalamiin. émission bii jooy gën nañoo jooy maam Abdou Aziz Dabakh. wallaahi gën nañ koo jooy. yàlla yóbbu na ko waaye xam nañu doyaluñ ci maam Abdou Aziz Dabakh. ndeysaan ndax bu fi nekkoon tey kenn du saaga diine ji. mu koy tànkam na kon nag la la war a wax dina ko ci wax ànd ak worma ak ceeg mm-hmm. mm-hmm. waaye lañu leneen lu moom am na ñu fi encerclé woon kër Taïb Socé mm-hmm. xanaa ñooñu dégguñu li ñu wax lislaam ana ñooñu ana ñu fi doon toj oto jàmbur parce que seen sëriñ lañ jàpp prison xanaa ñooñu nekkuñu fi ñooñu nekkuñu fi bi ñu saaga bi tey li kulli qatilin naa'ihaatun yanuunahu mm. muy lu doy waar rek ku ñu fi laal rek buñ laalee kër Maxtaar Sarr mu jug gàdduy xeeram buñ laalee kër Alaaj Jóob mu jug gàddu xeeram buñ laalee kër Mansour Samb mu jug gàddu xeeram bu ñu laalee kër Oustaz Aboubacrin Faye mu gàddu yatam waaye bu ñu laalee diine ñu naan bàlleen koog yàlla bu ñu jëlee kii ñu jeexal ci téléphone yi e, ñëw del siwaat ci studio bi nag e, tënkaat mbir yi e, tabaarakallah salaamaaleykum ci allo salaamaaleykum wa rahmatullah ah waaleykum salaam wa rahmatullah ndeysaan Cheikh Matar sonn naa ci woote bi de tey ñu ngi jéggalu ñu ngi jéggalu ah moo dugal woon du baax de ñu ngi jéggalu ma duggul woon daal dana métti trop ci man. ndeysaan. parce que Ibrahima Lo mu ngi may bàyyi xel na ma sa waay foofu ñu dugg. ndeysaan. lii moom métti na trop. Euh, àjjuma rek àjjuma ngeen teew ci bayal boobu ñu yeggalee fa émission bi. bayal bi fan. Euh, bayal géejawaay bi bi janoo ko euh, sapeur pompier bi incha allah. incha allah incha allah rabi di ñëw la 30 incha allah. incha allah ci teew dinañ kuñ ci xam dinañ la woo pour teew. incha allah ku dégg tamit mbir yi nga jottali ko koo ko mën a jottali. incha allah ne convoqué nañ fa jullit ñëpp ngir ñu war Omar Sankare ne ko yeneen bi du moroomam. wallaahi du moroomam. sallallahu waaye man li ma jaaxal ma taas. Mhm. ana ñu doon bàkkoo yeneen bi mooy sama maam xanaa newuñu ci dëkk bi. Mhm. ah sonal nañ. Mhm. ana ñu. waaye bu waaye ba àjjuma incha allah. ndeysaan jërëjëf toll nii man keroog. bi ñuy kaas ci diine gi ci làmb ji. keroog ñun mobilisé wu nañ fii dem. ndeysaan waaye ana ñu ko jiite ñu ngi leen fay séentu xam nañ seen bopp. Mhm. ñoo jiite woon ñu ànd marche bi dem ba CNG déposé ba. Mhm. ñoom ñëpp woo nañ leen. Mhm. bu kenn yëguma ko incha allah rabi. incha allah ñu ngi jaar bàyyi fàll bu baax a baax. jërëjëf. jërëjëf di woowe soxna Ndoye Seck ñëpp. wax dëgg yàlla teewee ko. Kéba Diop. xam nga Cheikh Anta. Cheikh Abdoulahad Diop. ma kenn ñëpp daal nañ teew incha allah rabi. incha jërëjëf jërëjëf. ku nekk xam woo ko ku mën a teew teew ndax bis la bu ñuy wanee eh, Omar Sankara ak saay-saay siy waaj saay-saay siy waaj di togg ñu bañ a yàq seen togg xam ne du amuñ ndab amuñ amuñ ndab fii Sénégal euh, Alxaaj Diop mu mel ni bi nga déggee émission bi yow tamit ñu ngi lay jëfal ndax moom it Oustaz Aboubacrin ñoo ngi moom barkil ba ba léegi ñoo ànd ci liggéey bi euh, subaa ngoon guddeeg bëccëg ñi ngi jokkoo fu nekk fu ñu war a dem ñu dem faak lu ñu war a dox ñu dox ko muy wuy ji ci débat yi di woote ci rajo yi def ay participation lépp rek ngir wane ne li tax may El Hadj li tax ma tedd li tax ñu may eh, bàyyi xel ci lenn li moom lañu ñu agressé nga xam ne kenn ku nekk siis bi mu toog siis boobu la waa ji yor si ci suuf dag damm na benn tànk bi boo yéexee nag fexewoo ko jàng dana mottali leneen li ci des bu boobaa da nga ànd ak siis bi daanu euh, Oustaz El Hadj Diop Gaye ñu ngi leen di nuyu bu a baax ñu ngi ñëpp di ñëpp borom daal ya waxoon ni xaarijin ida ma chima jaahu asfan wa ku ñu saaga sa ndey nga jóg riposte ku ñu saaga sa sëriñ nga jóg riposte waaye bu ñu saagaa yenente bi baa ñu saaga yàlla doo ko sax yëgal sa yaram te ma wax ni Sénégal ba ne sëriñ bi dëkk dëkk ban ne dëkk bi dëkk sëriñ Touba la dëkk Seydi Hadji Malick la la njuumte am ndax lu luñ fi gis mu naqari Maodo ñu jóg luñ fi gis mu naqari Sëñ Tuubaa ñu jóg waaye yàlla mi bind Sëriñ Tuubaa bind Seydi Hadji Malick di seen kilifa ca seen yaakaaru àddina ak àllaaxira ba li ñu bàyyi ci ginnaaw ñëpp yaakaar leen mooy yàlla moomu ñu fonkoon ca yaakaar ko kon Sénégal tey fii la agsi di firndeel sama wax jooju nga xam ne du ma dañ mukk di ko wax ca réew mooy réew bu bëree na fiq bëri téq téq mm-hmm. quatre-vingt-dix-sept pour cent musulmans c'est faux jullit ñu wér pas-pas dëgg soo ko doon génnee ci dëkk bi cinq yu wér pas-pas cinq pour cent amuñu Sénégal amuñu Sénégal beneen bi ñi la jiite ñi la jiite wax nga ko Oustaz maxtar ay yéefar lan daanaka ndax góor jigéen bu lacc lacc droit de l'homme génn ana ñoom allintin ana boy yooyu naan yaana maax réew mi di tàq 2012 ngir lan ngir kenn du laal suñu constitution ngir ne Abdou Abdou Abdoulaye Wade du fi faluwaat mu jaraloon ñu suñuy bakkan ba fukki nit ak ñaar dee ci tey ñu saaga alquran amul kenn ku pare pour dee ci ñu saaga yeneen bi amul kenn ku pare pour dee ci mm-hmm. réew moomu la ñu toll tey kon yéen sëriñ daara yi mm-hmm. yéen ustaas yi nga xam ni yéen ay wax ci diine nee ngeen mm-hmm. xoolaat leen seen bopp ci ngeen jéem a dégg diine bu baax a baax pas-pas yu yàlla ak yeneent yeneent bi nee na woon lislaam bi daa tàmbalee ci tumuranke mais ci la jëmaat hmm. waaye texe ñel na képp ku tumuranke ànd ak lislaam ana ñan ñoo pare pour tumuranke ànd ak l'islam te bañ a ànd ak seen intérêt personnel ngir rajo ba ma ne su ma fa waxee mbiru Omar Ximaar Sankara wala Xinsir Sankara dañ may dàq mhm. du benn oustaz bu ci sañ a ibbee ca émission ba ngay def ngir wax ci lii nga xam ni moom la ñëpp di jooy mhm. kon Sénégal réew mi na ngeen xam ne Seydi xaaji Malick tey bu fi nekkoon dara du doon liggéeyam lu dul lu dul Omar Sankara mm-hmm. bu bu fi Serigne Touba nekkoon dara du doon liggéeyam. Mm-hmm. lu dul jàkkaarloog Omar Sankara mm-hmm. kon yéen ñi wax ni da ngeen a gëm yàlla gëm yeneenti bi ginnaaw bu ñu gëmee yàlla gëm yeneenti bi ba pare. ci lan mën a nag def tawassul ci Cheikh Tidiane. mu defaral ñu suñu tarbiya waaye ku gëmul yàlla gëmoo yeneenti bi loolu mënul wér ci yow bu ñu gëmee yàlla gëm yeneenti bi ba pare. ñëw ci mag ñu jox leen suñu bopp ngir ñu yaral ñu suñuy bakkan kon nañu xam ne tey li ñu laal mooy suñu bakkan lañu laal laal mooy alquran la ñu laal yenent bi la ñu laal ayastumu muhammadan tabban lahu mhm. léegi bi may ñëw ci université bi mhm. dama dajeeg ñetti professeur ci fi muy jàngalee fac lettre ñu ne ma élage mania ah, ñu ne ma comme que suñu waa ji jéggalu na xanaa yéen sëriñ daara yi di ngeen ko jéggal ma ne ko du ñun lay jégalu na dem jégalu yàlla benn waa ji ni ma benn professeur bi ni ma bu dee yàlla lay jégalu kon lan moo tax ngeen ci rey seen bopp ma ñëw ni ko bu ma saaga woon sa ndey paala du yow yaay ripostel sa bopp wala yàlla moo lay ripostel mu ne eh, mais yow booy da nga da nga da nga reew ma ne ko wéy bu ma la saaga woon day yaay ripostel sa bopp gis nga ci saa rek wane na ci saa si rek mer na kii mer na naan ma danga nga reew bu ñu saaga woon sa ndey yaay ripostel sa bopp bu ñu saaga woon président bi mooy du ripostel boppam foo man di ne armée bi dina la fekk yóbbu la ci kaso bi ki gën président bi laa wax muy Macky Sall gën ki nga xam ni moo yor armée bi ñoom ñëpp ci kanamu yéen bi ci pot man El Hadj Diop maa ko wax. barke salaatul faatihil azim ak alquran bi ma gëm. Mhm. billaahi wallaahi tallaahi pexe naa dem. pare naa pour dem rëbës ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. du fa yegg bu ko jëree incha allah. du fa yegg tabaarakallah. du yegg foofu kenn du dem rëbës kenn du dem campinal kenn du dem bàmmeel kenn du dem fenn Sénégal gii la ñuy toog janook Omar Sankhare ak ñu mel ni moom demuñu fenn fii la ñuy toog lekk ci ceeb bi naan ci ataay ji toog naan Omar Sankhare Sénégal gii moom. Euh, doo fi doo fi mën a yekkee ci éléments yu ñu jot. doo fi doo fi yekkee li nga xam ne moom nga togg. su ko defee sëñ Oussa Aboubacrin fay waxtu wi jeex na ana yan kàddu ngay tënkee ngir jeexale ko jataay bi nga xam ne moom la ñu jagleloon tey ci axiru zaman professeur u axiru zaman boobu waaw alhamdulilah gannaaw bi ñu rafet loolu fi jib lépp ci ay kàddu di lépp daal ci jullit li la mhm. ñoo war a xam li leen yàlla defal ciy teraanga la mu laaj ci sant yàlla ñu war cee taxaw kon jullit ñi lay delloo lépp lii ndax kenn ku ne la nga ne buñ ko laalee ña nga àndal ca loola jóg taxaw mhm. jullit ñi rek laa gis fii lu toll ni alxuraan ñu ne wérut lu toll ni alxuraan ñu ne dafa manqué lu toll ni alxuraan ñu ne dafa am ay njuumte njuumte yoo xam ne si xaaji Malick dund na ba génn àdduna te gisu ko njumte yoo xam ne sëñ Touba génne na ba génn àdduna te dund na ba génn àdduna te gisul njumte yooyu ay njabootam ak i doomam ak i doomam ba mu sit ay sëtam ñëw te gisuñu njumte yooyu benn waay bu ñuy wax Sankaré di souligner loolu réew mi waruloon a toll fi mu ne nii maanaam li xew buñ ko mesurer ni mu toll bu fekkonte ne nañu waroon a mel meloon nañ noonu mbir mi du demee nii euh, loolu daal. tabaarakallaa moom xol bi tabaarakallaa boobu léegi ci studio bi moo tax mënuñ ko jox paral lu bari ndax xam nañu mbir yi fi mu ko toll mu Issaawu Bakkarin Faye euh, dañ niñ ko laalee la ñu laalee ñu bari ba tax boobu ba léegi ronxañam a ngi dal ci dënnam ngir mbir mi euh, fi mu yegg ñi fa yegg su ko defee nag am na euh, ku ñuy wax Lewis Likens Lewis Likens mooy ancien ambassadeur bu Amérique fan yii la màndaam jeex bam ne mi ngi dellu Amérique mais bi muy ñibbi la ñu sànni bomb yu rëy ñibbi ko bomb yi muy sànni bokk na ci lim mu wax mooy Sénégal ñoo waroon a jiitu ci xeex gi ñuy xeex ngir euh, góor jigéen yi am droit ci Sénégal mu ne Sénégal la ci waroon a jiitu Louis Likens nekk ancien ambassadeur nga xam ne mandaam jeex nañu ne jamono yi bi muy ñibbi kàddu yi mu tàggatoo ak Sénégal loolu bokk na ci. maanaam Sénégal ñoo waroon a jiitu ci xeex gi ñuy xeex ngir góor jigéen ñi am ñu am fi liberté mu bokk ci lim ne métti na ko tamit mooy mbalit mu bari mi ci Sénégal ma ne ko nag mu bari mi yàlla def na sutura ku ñu doon wax Lewis Likens moo ci gënoon a xasaw te tuuri nañ ko te mbalit mi nag dafa yéex a fés dañ ko yor Sénégal mu am fii at xeeñut ba bañ ko war a tuuri ci la soog di xasaw ñu xam ne xasaw nañu tuuri ko dafa bàyyi bañ koy tuuri mu soog xasaw waaye mbalit mi Lewis Likens doon naqarlu Sénégal mbalit mi mooy Lewis Likens ak ñi ko fi yebaloon te léegi nag moom Lewis Likan sa góor jigéen la woon ci ni mu waxee moom léegi nag ki njabalaat kumu kii ñëwaat nekk ambassade bu bees bi ndax mbir yi ñu ngi ci côté daara yi bu ñu concentré wu ci mbir mi alxuraan ak sànqare ak sànqare am na yeneen yu ñu doon togg dinañ profité waale jéem ko yàq waaye côté yëpp ñu ngi leen ciy bàyyi xel. Lewis Likan si nee na Sénégal ñoo waroon a jiitu ci xeex gi ñuy xeex ngir góor jigéen ñi am fi liberté ñu comprendre leen ñu ngi koy wax na nag yow ak ñi la fi yabal ak góor jigéen ñi ci pot. bu yàggul rek la waa euh, euh, benn réew ñëw fii nii di di ah Hollande di def seen daje bu ñu doon daje fii nii mooy waa Genève fi waa Genève yi bañ invité woon ministre bi nga xam ne moo yor wàllu justice ba mu demoon fa ne waaw te tëjuñ fa benn góor jigéen ba mu ñëw tijji góor jigéen bi ba mu ñëwee wax wax jooju nga xam ne moom la wax en tant que ministre la mu waxoon mu def ko ministre boobu nga xam ne ñoo ñoo ko invité woon ñu mel noonu ñoo fi ñëwaat Sénégal euh, hôtel Méridien Méridien am téeméer ak yu teg ci yuñ tegoon Sénégal ngir ñu nangu ko Sénégal nangu na téeméer ak nangam bañ fanweer ak benn yeñ bañ mbirum góor jigéen ci la bokk. fekke naa fekke nga daje ba fekke naa waxtoom jotagul nañ dem ba waxtoom. incha allah su ko defee yooyu ngeen bàyyi ci xel waaye daal fi mu toll nii li xay di njàmbat mooy mbirum sànqare di delluwaat di leen woo. émission bi deux heures de temps doyul trois heures quatre heures bu ñu nekkoon fii ba gee ba suba ci fajar ñuy salaatu li ñu war a wax du jeex te doyul. tey ñiy woote. ñiy woote boole ci ñu bare mooy wax sama téléphone di wax ne seen serveur bi téye nañ leen ci lu yàgg mën a dugg mee nu mbir yi demee la Oustaz Aboubacry Faye li mu indi woon ci këyit yëpp benn paas daanaka la ci wax. kon nag li des ci mbir yi bu ngeen bëggee xam mbir yi fu mu toll ak mbir yi métit wi fan la yem jullit ñi. yéen ñëpp na ngeen teew ajjuma 17 septeur mu ngeen jullee si fi nga xam ne mooy terrain bi janoog sapeur pompier bu Géejawaay rajo yëpp jox nañ leen rajo yëpp nañ ñëw télé yëpp nañ ñëw journaux si siiwal FM quotidien lépp nañ ñëw invité nañ leen ci bis boobu Ousmane Mansour sa numéro ngir ku bëgg am yeneen i leeral yu jëm ci wàll googu noonu la. mën nga def 70. 70 numéro Ousmane Mansour Samb. 104. 104. 71. 71. 40. 40 70. 104 104 71 71 40 70 104 71 40 mooy numéro oustaz Mansour Samb mi def taxa xawaa xabiyun aqlu sankare battun waqatun duburu daaka sankare ayastumu muhammadan tabban lahu wa man saa bi naxwi kis bi sankare oustaz Mansour Samb moomu numéro am 70 100 100 4 71 40 su ko defee aaxiru zaman numéro mooy 76 522 44 44 76 522 44 44 ku woote ci numéro boobu da nga jot Makhtar Sarr mi ànd ak yéen ci seen émission aaxiru zaman tey seen émission aaxiru zaman mi ngi noonu. ñuy jaajëfal ni Oustaz Mouaz ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar ak azatise yi nga xam ne yëpp message yu dul jeex jot naa ko ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ci taxawaay bi nga xam ni moom ngeen am ci mbir yi bi ba mu toll fii mu toll. seen émission axiru zaman di leen dig daje incha allahu taala talaata jii di ñëw waaye àjjuma bu ci yàlla àndee 15 euh, euh, heures ba 17 heures danañ leen tegalaat émission bi nga xam ne moom ngeen doon déglu di leen woowaat encore une fois ci euh, terrain bi nga xam ne moo janook sappoor pompier bu géejawaay ngir ñu dajaloo fa àjjuma 17 heures ñëpp jullee si fa tàkkusaan ngir ñu wan ca bërëb boobu noonu le ne sànqare yeneen yàlla Muhammad du juum du ku ñuy critiquer alxuraan amul yi njuumte pas-pas bi nga agressé am na ñoo xam ne ci réew mi ba léegi seen xol yi deegul mu ngi dund ak bëgg yàlla ak bëgg rasulullah yi du ñu nangu ku tuuse sunu religion wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yog dénkaane waat fàttaliwaat te soññewaat Siwel FM ngi dem te dun dëppaat amaana dig bi jege naam yéen a déglu Siwel te soññewaat